donc ñun minuit 6 mooy doog jot ñu ngi àndandoo ak yéen depuis 23h en direct quartier général tey nag ñu ngi jëm xëdd bi si mujj yi moom bu ñu neexee gën a xaabaabal dem sax ba 4h du matin ah. waaye <laughs> heure bii la gën a métti ah <laughs> heure bii yow yow la ni. gisoo waa heure bii gisoo waa fii niñ may xoolee. <laughs> heure bii alaaj Pape kenn mënatul xool. kenn man bay baatoogaay bi yàggul. tubarkalla Pape macha allah. maa ngi bëgg macha allah ñu ngi ñu ngi ñëw ci yow léegi nii képp si ñu doon expliquer sànq téléspectateurs yi euh, euh, lu jëm ci assemblée ak ñoom seen élément bi defee naa noppi na pour ñu wane ko dëgg la Pape Cheikh élément bi euh, noppi na ñu dem xooli ko muy soxna Awa Mbodj député à l'Assemblée nationale taxawaayam dëgg-dëgg lu jiitu li nga xam ne mooy li ñuy waajal ci sénégalais de la diaspora yi ñu dem xool ko ñëwaat di kontaan ci réseau bi nga xam ne man maa ko créé à l'Assemblée nationale muy réseau parlementaire des sénégalais de l'extérieur bi ma nekkee député rek man dama jël sama programme yëpp féetale ko ci loolu bu weesoo nekk naa député des des sénégalais mais nag député diaspora laa gën a féetale sama bopp ndax dama cee bokk nekkoon Sénégal de l'extérieur yàgg ci étranger yàgg diggante Europe ak États-Unis xam la ñuy jànkoonte ci ay situation yu metti ak na émigration meloon ak ni mu mel léegi moo tax ma créer réseau parlementaire bi mu bari nag député yoo xam ne macha allah lu mat 64 député ñu ngi ma ciy jàppale. ma kontaan ci yoolu ñu liggéey ci nag ay liggéey yu am solo waa objectif yi mooy doléance yi nga xam ne moom la sénégalais de la diaspora yi am ñu jël ko tënk ko ci symposium bi ñu defoon nga xam ne man maa ko organiser le 9 mai 2016 bii passé invité les sénégalais de l'extérieur invité gouvernement bi ñu tënk ci benn euh, liggéey boo xam ne liggéey nañ ko une journée ci affaire réinsertion ak problème yëpp yu nga xam ne ñun gis nañ ne ñoom ñu ngi koy am ñoom it ñu ñëw participer bi ñu participer itam kenn ku ci nekk indi nga li nga xam ne mooy sa problème ñu waxtaan ci def trois ateliers yendu toute une journée bi ñu defee atelier yooyu ba pare ci liggéey bi def nañu restitution bi ñu defee restitution ba pare def document bu am solo boo xam ne document bi pare na ba mu yóbbul ko ministre de Sénégal de l'extérieur ànd ak député yi muy Mankeur Ndiaye moom it ñu koy gërëm ndax jàppale nañu ci symposium bi bu baax a baax a baax bi ñu demee ànd ak député yi ak président commission affaires étrangères yóbbul ko document bi waxtaan ak moom ne ko nag dañu bëgg suivi parce que document la boo xam ne liñ ci liggéey dafa am solo lépp loo xam ne déglu nañ leen ko muy seen problème di par exemple problème mu retraité yi nga xam ne ñu nga foofu retraité di ñëw fii di dem te war di mën a fayeeku seen pension fii convention boo xam ne war nañ ko mën a voté entre gouvernement ak gouvernement pour ñoom ñu bañ di demati di récupérer seen pension foofu ñu koy récupérer Sénégal. waaw commission émigré nag amu fa woon man maa ko fa créé xam naa ne liggéey bi ma ciy liggéey te mën na am am na ñu ko defoon mais réseau bi moom man maa ko fa créé. te bi ma ko créé gis naa ne liggéey nañ ci liggéey yoo xam ne yaakaar naa ne ñun ñoo ko fa defagum. waaw ñuy ñaan yàlla nag mu continuer ndax Sénégal tey de l'extérieur itam dañu am seen wàll te yaakaar naa comme li président wax ne dañuy nommer ay député de la diaspora xëy na ñooñu itam bés bu ñu ñëwee continuer liggéey bi boo tukkee gis yeneen dëkk yi ni ñu mel dangay bëgg sa dëkk mel ko ba tax na ñun li ñu jëlee ci àll bi yëpp ñu ngi góor góor lu ñun tam pour suñu dëkk ñu am loolu di gërëm aussi waa TFM ci dalal bi ñu ma dalal tey di leen wax ne itam émission yi ngeen di def ci diaspora bi ñu ngi koy gis mais ñun itam di gërëm assemblée nationale parce que tam bi ñu defee réseau bi président Niass recevoir nañu bu ñu recevoir ñu waxtaan ak moom ndax moom yàgg na nekk ministre des affaires étrangères teg nañu ci yoon. ñu def benn feuille de route boo xam ne ak député yu bokk ci réseau bi yëpp dañu toog waxtaan mu won ñu yoon boo xam ne yoon boobu ñu ngi ci. ndax man tam loolu dama ko dolli ci li may génn di dem di leen déglu di def ay atelier c'est vrai que c'est très intéressant li mu wax euh, jëm ci sénégalais yi nekk ci diaspora bi surtout di gërëm bu baax soxna Awa Mbodj euh, surtout nag li nga xam ne moom la bëgg ñuy ñaan yàlla rek ñu adapté ko ah muy que ñuy fayekoo seen ay retraite fii ndax boo liggéeyee lu mu yàgg-yàgg sa retraite da nga koy jëlee ji fële pap ah. foog naa ne élément bi matale na di ko gërëm bu baax di wax ne na continuer liggéey bi ndax am na njëriñ lool voilà et puis Euh, da ngeen di abonné wu recherche YouTube TFM télévision Futur Média après ngeen abonné bu ngeen defee abonnement bi émission yi jàll ci télé bi yëpp tout le temps da koy am en temps réel et puis Zeyna xam na ni internet yaa ngi réagir di xaar site euh, di xaar tamit Ablaye Der par rapport ak euh, ndogu info internet yi itam ñu ngi xaar ay reportage Mamadou Ndoye Bane jëm ci li nga xam ni mooy Sénégal ak ay jours fériés yooyu yëpp nag xam naa ca kanam bu ci nekk ñu faram-fàcce ko jàllale seen ay messages. élément wu Ndoye Bane gaa yaa ngi koy xaar waaye xanaa rek dañ leen di fàttaliwaat ne suba quartier général du am waaye yéen internautes ci rawatina yéen ñi nga xamante ne yéen a téléchargé application bi di GFM et vous sur euh, si seen euh, smartphone di ngeen mën a am enregistrement boobu en direct et sur Facebook aussi kon gaaw leen gaaw téléchargé application boobu su fekkee ne amagu leen ko sinon itam ñu ngi xaar seen question euh, pour Siteu Siteu xam naa ne fii les quelques minutes rek dina ñëw sur le plateau. Grand quartier bi nag ñu a koy amalee ci dôme bi nekk si plaza xam nañu ko fa la xale yi di seetaanee cinéma ñëpp bëgg nañu ko donc miin ngeen si plaza euh, bërëb boobu nag dañ ci gërëm waa 375 suñu xarit Moustapha Diop nga xamee ne yàgg nañu liggéey ak moom moom itam yàgg na ak télévision Futur Média euh, suba euh, bu 19h30 jotee fekk ñu ndog ba noppi ci la ñuy tàmbali quartier général bu mag bi équipe bi yëpp ñi ngeen di gis ci quartier général bi depuis un mois ñoom ñoo joxante rendez-vous foofu donc suba 19h30 télévision Futur Média dafay nekk ak équipe. équipe euh, bu quartier général buñ ca jógee nag ñu joxante rendez euh, ci euh, grand bal bu Youssou Ndour ak super étoile Oustaz Pape a nag may xool waaye boo bëggee ñëw boo bëggul toog ñu ngi koy pare ñun neexalatuñu kenn koor gi jeex na ba pare vraiment mais daal ñu ngi leen di fàttali ne réservation yi tàmbali na ñu ngi ñaan ay billets mais il faut surtout pas ñaan numéro téléphone yaa ngi ci bande annonce yi ñuy wane ci télé bi point de vente yi nag guichet yi ibbi teel a dem diggante buntu RFM ak buntu télévision Futur Média euh, bu ngeen demee itam Prince Art foofu itam am na guichet euh, di gërëm nag bu baax euh, ministre Youssou Ndour yëg naa ni ñibbisi nga yàlla na sa jàmm yàgg man saa yi ma jullee ñaanal la ni may ñaanalee samay waajur noonu laa lay ñaanalee président Youssou Ndour yal na sa taxawaay yàgg defe naa ki dégg ministre à part l'art dégg ambassadeur à part à dé dégg docteur à part euh, ñu ngi ñaan rek sa taxawaay yàgg ci réew mi euh, defe naa euh, li nga fi créer ci ay emploi bëri na créé nga emploi ba ñun sax ñu ngi créé ay emplois parce que man tamit am naa personnel maa ngi fay grâce à toi yàlla na sa jàmm yàgg président Youssou Ndour yëg naa ni ñëw nga kon ñu ngi lay ñaanal bu baax ku ne amin daal yàlla na nga gudd fan ci li ma. amiin Pape amiin ndeysaan tudd ko sot Marcel léegi dama bëggoon ñu jàll ci leneen ginnaaw bi ma gërëmee Youssou ba pare. loolu ngay def tegoo ko ci yoon Pape. parce que xam naa ne ñoom ci nekk di nga am loo ci ci ci ministre. <laughs> Marcel ay maamam ci digg-digg moo daa wéy kan Massamba Sall chef de Ndia kàttan Ndiassane ak Demba Waar. chef de canton ba. ndeysaan Youssou. ci digg bokk ci askan wu rëy wu ñuy wax askanu Ngawlo di sama xarit. sës ma sës ci moom rek te rëkkuma ko. c'est-à-dire même Mamadou Ndiaye même Mamadou Ndiaye envoyé na ma texto léegi ci plateau bi naan moom Youssou c'est mon c'est mon père <laughs> c'est ton père. oui c'est mon père. da nga ko mës a gis. sànq rek. Alfi. dafa am togg bu rëy bu ma ko yàkkal yàlla buñ ko dagg pap dama ko yàkkal yàlla na émission boobu jàll bala koor gi jeex pap dama ko gis ba pare bi mu ñëwee sànq ah, dañoo jiitle dañoo jiitle dëggantaan li ma lay wax du caaxaan maa ngi ànd ak Pape Fall. Eva moom xam naa daf ma naan euh, Adja Ndeye Soxna Mbuub man la gën a bëgg ci télé bi yow noonu ngay doole. parce que président waaye man bu ma la waxee cat daf may dugg nigal ma sagal sama bopp nopp <laughs> Zeyna. man xam nga maay caatam depuis 2010 ba léegi <laughs> waaw ba mu yegg see nag ak léegi gisaguma ko waaye caat soxla na la na mun a papaam. <laughs> doy baat. mais reeru lëndëm la ku daj da yaakaar ne yow doo nga daj <laughs> dëpp na micro mais mais mais jëlal. non non attends euh, euh, Pape dangay sama xarit waaye Pape Cheikh il faut mu commenter lii. léegi da wax da nga wax oustaz rek mu ju mu sëggal micro bi lu xew. mu juutal micro bi. déedéet waaw ko sëggal di waa léegi Pape commenter boobu wala. sëñu ma ko waaye oustaz ayca. wala El xam nga euh, président ñun ñëpp dañ koy ñaanal. yàlla gën ko yokk yàlla gën a yokk wërsëgam yàlla gën ko ubbi. man euh, groupe Futurs Médias li ma ci gën a neex lépp mooy ñi nga xam ni. Oustaz balaa ngay jeexal baal ma de exceptionnellement damay bàyyi équipe technique bi ñoo ci ginnaaw caméraman monteur et tout le monde ngeen tànn seen représentant ma jox ko micro bi pour mu wax. <laughs> suukaru koor yooyu dafa yéex a ñëw yuusu lii ñu dal nii. ah kon yow wax jëpp waxi suukaru koor la ah est man nag li ma koy li ma koy ñaanal mooy yàlla na ko yàlla doolu jàmm. amiin ndax lii mu def dafa rëy. man maa ngi def ci émission bi émission maa ngi def télévision bi émission bu ñuy wax siira. macha allah siira damay waxtaane Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa te moom président émission boobu émission am la da ko raté ndax dafa bëgg yonent bi. macha mais li ma ci gën a neex. Mhm. mooy ñi nga xam ne tuub nañu dugg ci lislaam. macha allah te télévision bi la ñuy seetaan ñu waxtaanal leen ci rasulullah yi Seyda Fall bin tuubal na nit. Oustaz Mor Thiam. Mhm. man xaw ma ñaata laa ci tuubal ñoom dañ lay woo nañu ñu yaa ñu convaincre ñu ngi réew sàngam. loolu moom ñun yiw buñ ci am mhm. yàlla dina ko ci jox wàll ndax bërëb bi bërëb ma bu neexoon na émission diine du fi am na waaye gën a yaatal diine ji émission diine yi am ci télévision bi amul ci benn télé li fi am ci émission diine amul fenn yaatal gi ñu yaatal fii euh, am fu mu ñu teg mhm. waaw waaw ba pare nag lu xool lu am solo mu koy teg sunu loxo mhm. sunuy xel gën a dal waaw waaw dafa ñuy fay bu ñu liggéey ba le 30 mu jox ñu salaire bu am solo sunu xel dal sunu xel dal ñu dundal sunu njaboot euh, yenn saa yi dama koy wax bu ngeen ñu gisee fu ñu toog ci télé ku ci def émission di ko gërëm euh, koo xamul noo koy def nam la namu la defa tax koo xamul noo koy def te yonent bi moo wax ni man lam yeskuri naasa laa yeskuri laa ku dul sant nit doo sant yàlla sëriñ Mansour borom daara yi wax ni mhm. as gor bu ñu la defalee teraanga mhm. nga yoori lex nan daa ko yayoo ci mhm. baadoro la bokk Youssou jërëjëf man damay préparer dama nekk di préparer émission spéciale pour moom ah. loolu bokkul ci programme bu ah, ko a koy produire. <laughs> bu ba koy produire. waaw lu mu produire mu neex moom macha allah merci donc lii suñu door la woon rek pour euh, monsieur le ministre Youssou Ndour ñu ngi koy gërëm. man nag Mara ma daan yónnee daan naa toog ba mu ma oustaz foo ne. Mara ñëpp ma ne ko maa ngi nii Mara ne ma oustaz euh, ministre boole na ma ak yow. Euh, ma ne ko ma fi daf naan ma foo ne ma ne ko nekkuma fenn wax ma fi nga nekk rek. papa mi ngi seetaan macha allah papa awa mi nga gëj na ma man mi mujjee ñëw xam naa ne ku bëgg kaf ak ree nga waaye <laughs> man mi mujjee ñëw itam dinaa wax ne rek sañ naa ci wax. ndax dama ñëw dama ñëw dal gi ngay liggéeyee. xam naa doo ko doo ko weddi. Alaaji sama kaaw la loolu du dañ Marème Ndiaye di sama xarit waaye gis nga Papa Cheikh oustaz li may wax xam nga lu gën a neex ci diggante employé ak employeur dal bi. la paix mm. boo ko amee da ngay kontaan da ngay mm. sawar a liggéey et loolu ñàkkul ci kër gi dañuy ñaan yàlla mu law ba ci yeneen kër yi parce que loolu moom am na fi macha allah ñu ngi ñaanal big boss yàlla defal ko jàmm mais du ay dóor marto pour ay sukkaru koor ah. voilà d'accord <laughs> d'accord d'accord et puis équipe technique bi ñoom mënuñoo wax euh, ma waxal leen ñoom ñëpp ñu ngi euh, ñaanal euh, ministre voilà muy caméraman donc lii mooy seen dóor dugal nañu photo bi merci beaucoup ça c'est <laughs> ça c'est nekk euh, y a même les photographes derrière ñu yëkkati seen loxo waa service digital gën nañoo wengal seen téléphone snap euh, Cheikh Ndiaye ah, yóbbante bi yegg na donc lii yóbbante la woon rek euh, quartier général moo ko jagleel président Youssou Ndour yàlla na jàmmam yàgg oustaz dama bëggoon nga yóbbu ñu nag yoof àndandoog Mame Mbaye Laye ñu woon tëj koor gi te duñu dem yoof ndax ëtt bu ne dugg nañu fa te yàlla dogal nañu télévision Futurs Médias ëtt kër diine yi amu ci benn sens interdit amu ci sens interdit mhm. gis nga ku ci xewle euh, équipe bépp lay àndal yóbbu ko tey nag ginnaaw bi ñu demee kër Cheikhil Khadim bërki démb démb ñu dem kër Cheikh Seydil Hadji Malick tey jii nag ña nga jëm kër maam Limaamu Laahi ànd ak Mame Mbaye Laay Mame Mbaye ah, jërëjëf bala may yëkkati li may yëkkati damay wax ci kàddu tàggkatu yenent yi grand président Youssou Ndour macha allah ndax liñ koy gërëmee mooy lii munu defal ci weeru koor bi mhm. te dafa raar mhm. mooy ku nekk xam na antenne mu chéré ku nekk xam saal yi bala nga koy jël ñun ñu koy jël xam nañ li nuy daj pour jot ci dëgg la mu may nu opportunité jullit ñëpp daje ci benn saal ku nekk bégal sa xol ci tagg yonent bi amuñu fayam te xam naa ni ku téewoon micro bi ma yor ci tàggkatu yonent bi di ko gërëm gërëm kooku ndax damay wax ni boroom kër ci këram mm. su njabootam demee immigré ñii dem France ñii dem États-Unis ñii dem feneen ba xëy vacance rek ñoom ñëpp ñu daje ci kër gi mm-hmm. mbégte googu di eh, jébbi ci xolam mm-hmm. gëm naa ni sunu borom mbégte boobu lay am ci dajale gi mu ko dajaleen njabootam ci benn saal kon ñu ngi koy gërëm di ko ñaanal damay wax ni fond bi mhm. moom amatunu mhm. dara luñ ko fayee ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla suturaal ko di eh, bëggee tàggkat yu nit yëpp di leen wax it forme bi ñoom it mhm, Youssou def na li ko war Sénégal benn lañ fi am waaye bu ñu amoon bu ñu amoon beneen rek suñ ci amoon beneen rek mu gën a baax ndax wax fa dëgg yàlla li mu néeg a def ci lii li oustaz wax léegi bariw ci ay moroom wala sax amu ci moroom mm-hmm. kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yokk ko te yëkkati télé bi ci barke yonente bi alayhi salaatu wasalaam tàggkatu yonente bi nag forme bi mm-hmm. ñoo koy teel suñu bopp mm-hmm. ni tagg yonent bi cër la maam Abdou Aziz nee na bihi naa la maa naa la rijaalu maraati ban góor yàlla yëpp ci tagg yonent bi la ñu jaare ba àgg ci niveau bi nu àgg mm-hmm. Mm-hmm. kon ñun ñëpp mën nañ ci nekk mm-hmm. may nañu chance bi nañ ko exploiter voilà ayca najima dooraate tuubaat rote sabbal ci buur mi jéggalaakoon bi mooy rahmaanu rahiimu maaliku yàlla moom jaam ñi yàgg lañu am mooy buuru jaam ñi moy mooy xudduusu yàllaahu tey rëccu ñaaw te fii bi salaam mu def nu muumin yu wér fi diini yàllaahu kenn kuy dogal new fi wahaabu yaay ki fi ne kon may nu wu yaa razaaxu yàllaahu buuram na ay jaamam yu sunna mee rek yàlla taxaw ubbil nu yoon ya fa jëm fataaxu xawi yu jaama ngi nii dëgmal la yaa di matiin ndem ñàkk naa am la am naa lépp yàllaahu rusal ki rusal ki rus yàlla jot naa. wurus yàlla jot naa jullit de daa am ay charte mooy gëm te seede neel naa rus yàlla jot naa bul fàtte xunoot yàgg sa kot nga naa ka kot yaa mag wér naa nga ñëw ci duniyaa di yuuxu naa yaa lëndëmaayu duniyaa nu jooy ko war nga màgg wóor buur doo julli doo woor bëggoo lay waar ruus yàlla jot na ay bul yàq mbindéef ci kàddu baa bul takk bul sëf ruus yàlla jot ay jaam bi ëllëg de am na tàngoor watar na luy wurey néew na waay waay na ooy jëf del bàyyi xel buur lu liw bur yàlla gis naa lëndëm yu tar ya ngay suul yu bon yaa rus yàlla jot na maaman yi tax na xel yépp ñaaw na sëy yépp yëngu na rus yàlla jot na wujje gu targee njëkkig jabar yee yii tas na kër yee waay waay ruus yàlla jot na ay jaam ñi mbokka gi tas na njël yépp a xaaj na wóoloon te jeex na ruus yàlla jot na jambe jigéen ñi sëy leen jëkkër du maas kàddoom wor ma leen rus yàlla jot na yow mii di sëy loo leble cib sëy ëllëg dafay xëy njaboot la koy fay rus yàlla jot na góor ñi yërëm leen jigéen sargal leen njaboot gi yar leen rus yàlla jot na doon samba àllar foo dem di jaay njaboot gi xiif lool rus yàlla jot na ay jaam yi yow mii jox cër ci réew mi sàmmal looy sàkku bul ger rus yàlla jot na fexeel nga doon gor ci lépp loo yor moytul ma ay wor rus yàlla jot na nanu bàyyi xel buur yàlla day seet ku sa doon jiit lii rekk a jar tiit rus yàlla jot na ndax li maamu nee na dina meddu xaaj la ak mutaan nu noot ba kami roy Mustafa sidina limaamu neena bu nu noonoon te ngir mbañeel lu mu man doon na yàlla taa na nu noot ba kami roy mam limaamu neena bu nu xeebante ngir askan kullukum min aadama nanu roy limaamu laay Mustafa bay laay nee na bàyyi leen tëgguy askan ku nekk naan maay ki fi gën nanu roy limaamu laay Mustafa ndax ki gën de mooy ki gën ragal allahumi xaalixuna nanu roy limaamu laay ana loxo yee limaamu nee nan bokk sant laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah kon lay maxtaar madina laay Mustafa كلا ولا خلب لكن لما كتمنا ترخلون نجب nee na voyage baa ngay départ kenn ku ci nekk fa nga dëkk mal mu ni ma Chaamu déet Chaam dëkk la maqsiduna di sunu jubluwaay kallaa déedéet mukk it nag wala xalabu du caagin xalab jëwuma Saam jëwuma Xalab jëwuma Yaman jëwuma beneen réew fu mu jëm lakin li makkata minna turxalu nujabu mu li fi nekk nag fu jëm départ li makkata mooy makkatal mukaram mu ni laakin li laxas nanu nag départ takk sunuy naaga boobu bu njëkk avion amul naaga yi mooy naaru góor yi waykatu arab bi ni départ na déw ma benn réew fu ma jëm mooy seeti néegu borom bi subhanahu wa taala tamay ummul quraa lastu ansa is tuqarribuni mu ni makkatal mukarram mooy ndeyu dëkk yëpp ummul quraa lastu ansa dit may fàtte is tuqarribuni jamono jamay ba may jege makkatal mukarram di yëg leneen di xool leneen ma yëg ni sama diggante yàlla tey dara doxu fi waddam umin faraqi fi xijriha sababu nee na samay ronkoñ di sottiku ma xam ni kii ma defal teraanga bind ma def ko neexoon ko mu def ma may mala mu bind ma moom borom bi subhanahu wa boole ma ma bokk ci xeetu sidina Muhammad yàlla defal ma teraanga kenn amul teraanga bu ëpp wàcc makkatal mukarram tey jii maa ngi màkk sama ku bëgg ziyaari ji rasululaahi manat alayya bi waslin kal xayaali مدى يهزني كل كلما استحضرته تراب لم جدك لو لم يكن غير بحث المصطفى غير بحث المصطفى سبب لمجدها لمجدها لكفاها كفاها ذلك السبب yaa nga yëg doolay rasulullah yi yaa nga yëg kattanu sidina Muhammad waaye yaa nga yëg fi yàlla teg rasulullah yi yàlla nee na ko sama teraanga de xaw ma ku koy miim waaye du yow mhm. yow day rasulullah yi bind naa mindee fi yaa ma ci gënal doomam sama teraanga wa kaana fadlullahi alayka azima xar naa sama weer yi ndax yow doomam sama teraanga caabi aljanna sa loxo laa koy teg drapeau yowul hamdi yow laa koy jox yow rasulillahi sama teraanga xaw ma ku koy miim waaye du yow wa kaana fadlullahi alayka azima maam mbay laay ne waykatu arab wax naa la ko léegi doy na lu sëkk teraanga xajartu aswad mi ngi ci yow maqaam ibrahima mi ngi ci yow safaak marwa mi ngi ci yow kaabatullahi mi ngi ci yow arafa mi ngi ci yow musdalifa mi ngi ci yow munaa mi ngi ci yow yow màkka li nekk ci yow lépp sa suuf su tedd sii xam nga lu xewa doy na la sëkk teraanga mooy juddoo gi Seydina Muhammad juddoo fi ci sa dëkk bi kon yaay Ahmadu rasulu rabbul alamin maami Amdulaay xayaarul aalamiin yaay Mustafa billahi ana ana waa kër billahi def leen nii def leen nii yaay Muntaxa ku ma soppal maam li maamu laa yaa Ahmadu billahi Chérif Abdoulaye Thiaw Laye baarakallah baarakallah Mame Mbaye Laye alaaj Pape mi ngi noonu macha allah ngoo Mbaye Laye ngoog moom yaakaar xam nga bu ñëwee rek ñëpp bég ñaanal ko yàlla na ko yàlla yokk ak njabootu maam li maam Laye gi soxna yaa Faati Thiaw Laye koy nuyu daw yaram bi euh, li tubaab naan chair de poule mënul ñàkk nga ma ñe yàlla waxoon ni wa saqihum rabbuhum sharaban tahuran mhm. mhm. rawatina kalimatu laa ilaha illallah mhm. baat bu diis la baat bu diis la muhammadu rasulillah boo ko tuddee rek alaaj pap faaw sa yaram am lu mu yëg. macha allah macha allah jërëjëf oustaz Papa An jërëjëf Mame Mbaye lay maxtaar fàttali rek ni waa ahlulaahi. sa guddi korite gi. Mhm. yàlla day dogal ahlulaahi yëpp daje ci. ëttu Seydina Limaamu muy ci péréwo Yoff bi waaw waaw eh, sunu woyjur yi di Pape Mam Libaas ñu ngi koy mhm. ziar mu Pape Mouhamadul Amin mhm. ak njaboot gi yëpp Pape Mouhamadul Maxtaar Imam mu jiite ko ci turu yàlla kon ñu koy fàttali laayin yëpp mais di ko fàttali jullit ñëpp mm-hmm, mm-hmm. ndax weeru koor yëpp noonu la ñuy ànd ci turu yàlla waaye guddi googu mm-hmm. Seydina Limaamu alayhi salaam moo ko wooteeloon boppam ci koreem gu mujj ni saxaaba yëpp nañ ko fekk jàmmalaay mhm. ñëw dund ko kon loolu la ñuy màggal mhm. sax sunu tolloo ci guddi j'aimerais j'aimerais baaxee peut-être ñu bëri xam nañ ko mais xëj na ñàkkul ñu ko xam ndax euh, mhm. ñëpp mënuñoo xam lépp ci ndoxu jàmmalaay bi euh, ngënee li ci ne man dama ci sangu suma ma jaaxlee dama ci dama dama koy ñaani dama koy wuti donc bëgg naa téléspectateurs yi tam di ci profito ci ci ci ndox moomu ndox moomu dafa am solo dafa doy waar lool lool lool lool man de xam naa xam naa xam naa njëriñam xam naa njëriñu jullee ci biir xabru bi mu ngoog ndax euh, xabroom boobu ndox moomu yàlla dafa dogal su ma mënul dem ba Touba mhm. daf may ma dem foofu bu soxla bi soxla yi méttee lool xam nga sang bi dafa am lu am solo mhm. muy li nu souligné sànq mhm. man loolu sama guerre la waaw mooy foog ñu yëg ñuy dund comme ni ko Oustaz di defee mooy jullit ñëpp yëg ni benn lanu wallaahi benn ñu yëg ni tey jii nii su ma waree dem jàmmalaay ti mu fekk ma booru tiwaawan soxlootuma jàmmalaay dama war a jàdd tiwaawan kon fii àggunu ci dimension boobu rek royagunu ma kon ndox moomu nag ah. yàlla dafa dogal muy ndoxu zamzam ndox mu baax la de wallaahi te yàlla su tuuti rek ah, ah. su aj gi jegesee su aj gi jegesee rek ndox mi dem na day gàddaay su aj gi nag jeexee nga door a amaat ndox loolu nag lu yàlla la koy sant yàlla bu ah, baax a baax lu ma ci doon dolli mooy que waaw Yoff yàgg naa fa mm-hmm. Mm-hmm. foog naa ni ëpp naa fa dix ans waaw ah. ndax euh, amoon na benn année boo xam ne te doon naa sob ah. di génn Yoff dem dëkk ji feneen mm-hmm. waaye dootuma ko dolli Yoff su ma sañoon fa laay deewee. balaa ñu maa yóbbu Touba. macha allah xam naa la fa nekk. ñamal nañu si as mm-hmm. xéewal ga fa nekk. Mm-hmm. Mm-hmm. ca euh, suufas jàmmalaay xam nga ci lan la gën a garaaw. soxna su nekk ci diggante. suuf si doxantu. incha allah di nga mucc si jàmm te dara dul dal. wallaay wallaay li ma wax ni dama ko seede. ak tànk ci ndox mi bàyyi sa kër. barke Muhammad. dama wax ci benn bind ni xool jàmmalaay mooy jàmm yàlla. macha allah xam nga jàmmalaay oustaz dina kii jàmm mooy mu ngi nii mu ngi nii. jàmmalaahi mooy li ma weex tey sa ñëw tax. mu ngoog gars yi nag ñoom bu la laa bëggoon def waaye bi ma yëgeen da ngay ñëw rek ma def weex. ah kon de kontaan na waaye yet wi daal na sama kaw waaw <laughs> ma ni fonkal bërëb ba dee fa ñaan <laughs> loo ñaan mu am su dee lu baax ci barke maam imaam jërëjëf maam nag ku nekk war nga am yëg-yëgu jërëjëf soo demee ci bërëb bu ni mel waaw loo fa sàkku ndax nettali nañu ci ñoom oustaz ni nit dem na ci sax xabru xaj bu nu defar mm-hmm. yaakaar gu mu am mu jàpp ni nitu yàlla fa tëdd mu sukk fa ñaan yàlla fekk ka fa wakat nag ñu tedd ñi nga xamante ñoom la ñu yàlla jox kon ñu ngi gërëm it booba di sunu di jaboot Seydina Limaamu alayhi ah, salaam di ziyaar euh, abi mm-hmm. ak mbooleem njabootu sunu yaa euh, soxna ndey soxna yëpp di leen béggee sama xaritu bopp nag ah, ah. muy soxna Ngone maa ngi koy ñaanal yàlla sutural mu ngoog moom sama lépp la ñu ngi koy ñaanal yàlla di félicité bu baax a baax tele bi di ñaan quartier général yàlla na yàlla na quartier la doon mais yàlla na doon région générale. incha allah barke Baye la alayhi salaatu wa salaam wasalaamaaleykum soxna itam ñu ngi koy ndokkeel bu. sama sang sama xarit baax jigéen ju baax. Euh, euh, doon ay ay waajuram dañuy faral di wax naan la ca maam sëtu koy jël. te euh, doon na ay waajuram doon na maamam ñu ngi koy ndokkeel bu baax. ak kull ku bokkoon ci njabootu Badiane Lali donc yoof ñun miin nañu ko yàlla na seen taxawaay yàgg. suñu koy ziar di ziar Serigne Mor ndax bi may ñëw moom mooy ñaanal. waaw muy sunu xarit su ngeen di xool li ñuy def Sorano ti TFM di ci ànd ak ñun. Mhm. chaque jour Serigne Mor mooy ibbi loolu. rakkam jooju Thiaw laay nag doon sama jigéenu bopp sama xarit. Mhm. man moom toujours fu ma toll lenn rek laay kontaan daf may maye bon essence. macha allah waaw maa ngi koy ñaanal soxna Ayta Seen bu maam Ibrahima Sini. maam Alsaan Serigne Mansour bëgg nañu wax lu béyti yëpp. sunu sunu tijji woon sunu xol. Mhm. su xol doon valise sunu tijjee sunu xol dinañ xam ni ñoom fees nañ ci di ñaanal di leen mu nekkee nii ci bërëb bii nii. almahdi loolu itam <laughs> waaye waaye Pape Cheikh. li ñu koy joxe noonu la koy joxe waatee. macha allah macha allah benn ci bii nii. macha allah te mu ngi bëgg yàgg ci man ak yeneen ak yeneen ak yeneen. bëgguma ko woon wax sax jërëjëf Laye Makhtar <laughs> itam ñu ngi lay gërëm minuit jot na. bu ñuy àggali bu du ñu la fi téye dañu lay bàyyi nga waaj pour ëllëg. ëllëg bu soobee yàlla ci fajar gi. incha allah macha allah am nañu mbégte lool yàlla sa jàmm yàgg oustaz ñaan jikkalu nag mm-hmm. borom waa réew mi mm-hmm. ñaan bi koor gi tàmbaleeg léegi mm-hmm. lépp lu ñu wax juum ci ngeen jéggal ñu di leen baal àq di leen mhm. baal euh, ñaan réew mi yal fi yàlla dellu jàmm dolli fi barke dolli fi teraanga ak xéewal yàlla defar sunu mbiru àdduna defar sunu mbiru alaxira groupe Futurs Médias yàlla defal leen jàmm yàlla saxal fi jàmm ñëpp am jàmm ñu am jàmm déwén ñu am jàmm la dëgëral yàlla sàmm la Sénégal yëpp la bëgg ndax sa baax sa yiw yal mm. mm. na yàlla yokku la dëgëral ci darajey Sidina Muhammad ñaanal sunuy directeur coono bi nga xam ne ñu ngi koy jànkoonte waaye wàcce seen i bopp ñoom itam yàlla barkeel leen am nañ mbégte loolu Serif tam bi du ci bi mi ngi lay dafa al buuba dafa soon dafa feebar nuyu sama di missionnaire ci Seydina Lim fu mu jëm ci àddina ànd ak ñun ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla suturaal ko bu baax a baax doolu suturaal barakallah jërëjëf jërëjëf alaaj Pape kon rendez-vous suba ci grand quartier général bi ñu ngi koy enregistré fi nga xam ni mooy doom bu si plaza bu ñu ndogoo ba noppi 19h30 ngeen ñëw rek ñu tàmbali ñun ñëpp a ngi préparé suñuy discours kil ku lim juum mais ñi jàpp ci suñu ay combat moo bari muy man muy animateur yi nekk ci émission bi yëpp du ñuy bëgg sax euh, di euh, maye dédicace ak di gërëm waaye ñi ñu war a gërëm bëri nañu xam naa suba ji dinañu def suñuy list nag gërëm ñi jàpp ñëpp ci euh, combat yi ndax boobu ba tey ñi ci biti sax liñ ciy jàpp des fois daf ñuy jaaxal dangay toog ay kilifa di la woo di la ñaanal defal lii defal laa ay tailleur di ñaw di la jox ngoy sol

gestion participative une première mu nekk lu ni vraiment ñëpp na ku lim Dioum docteur Cheikh Kanté ñu ngi koy gërëm bu baax Maodo Malick euh, euh, nga jottali ma ñu ngi lay gërëm bu baax Pape Assane Seck euh, daf ciy jàpp moom tamit ak waa Sénégal ñoo far tout le temps ces messages et tout ça et ces idées donc Pape Assane ñu ngi koy gërëm bu baax gërëm itam ki nga xam ni mooy Maodo Malick Mbaye moom tamit daf ci jàpp ak imam borom këru Eva Tra la mais man dafay jàpp ci sama combat ñu ngi koy gërëm Ndiogu Diagne aussi mu ngi États-Unis koy gërëm en tout cas suba dinañu àggali liste bi. mais ñi ci jàpp bëri na ak madame le maire bu Sam Notaire madame bu Sam Notaire moom tamit mu ngi ciy bu baax. et am na am na am na am na defe naa ku ministre yónni da ci ñun waaw. waaw am na ku mu yónni ci ñun de allo. ah kooku dafa dem. ah yóbbante yóbbante yóbbante ministre la de. yóbbante la mais nettali ci laaminu borom. nettali ci laaminu borom donc euh, euh, xam naa xaar bi moo yàgg. ki yuusu euh, yabal la ñu bëggoon déglu léegi nii euh, pour ah. waxtaan ak moom rapidement waaw dina woote waat xam naa comme ça ñu doog a jàll ci euh, Mamadou Ndoye Bane ci reportage bi nga xam ne ni préparé na ko jëm ci li ñuy faral di wax naan Sénégal dafa bari ay jours fériés yenn saa yi nga ñëw fii toog lu yàgg gis ni nit ñi duñu liggéey même bu dul férié férié li mu wax sànq dëgg la boo dëkkee àll comme man nga war a di jàngale war dem julli ji di am ñaari fan pour amaat ñaari fan pour ñëw loolu itam am na lu muy yàq mat semaine dëgg dëgg day mat semaine su fekkee jàngalekat nga moom moo xale dañuy toog di la xaar une semaine doo ñëw mais daal comme ni ma la ko waxee début bi toog naa bi ma calculer feetu jullit yi ak feetu chrétien yi bi ma ko boolee 15 jours la 15 jours de férié. 15 jours la. ok 365 jours mooy at mi. léegi balaa ngay teg reportage bi. waaw te ñoo jël. Euh, euh, waaw kooku kooku kooku jar a jël sax intéressé d'accord te bëgg naa ko jël ci kanamu Malal Junior Diagne Malal mën nga ñëw yegg si nga toog ñu fekkee yóbbante bi en attendant sa invité di yegg si euh, sa invité site voilà donc Malal ñëwal toog alo allo. allo. allo oui. la ko wax maa la ko wax y a jamais 203. <laughs> y a jamais ziar naa la waay. ñu ngi ñu ngi delloo ziar. dégg naa ci yéen. kontaan nañu ana suñu umpaañ ajatu maam Ndiaye. Ah, macha allah. waaw aka waaw loolu am na moom ay ndogom dégg naa ay ndog yu spécial la. waaw yu spécial man bu may naan lu tàng di ceeb. waaw dégg naa dégg naa maam si jaarde bi mu lay jëral lalal ngay julli sax da koy da koy da koy cuuraayu màkka. wallaay ci la dëkk. waaw yooyu yëpp dégg naa ko de. <laughs> dëgg la Pape dégg naa xeetu xeetu xeetu baax baaxam yi muy def ci koor gi day mel ni festival. as askanu ngéwël la. macha allah macha allah. askanu ngéwël la loolu yëpp mi ngi koy rootee ci yaayam. yàlla sa yàlla yërëm te xëñu muy ajaratu Maajo. amin amin ak ajaratu Daaro Mbaye. amin suñu yaay. moom xam nga dafa yàgg ceeb. mbana mm-hmm. e, la daan teg di doxee phase bari 22. macha allah ci weeru koor gi surtout. wallaay léegi nag sànq dañuy ah. gërëm dañuy gërëm sa sa xarit di mosieur le ministre président su nduur euh, gërëm gi segam waa mbedd bi ñoo mën a gërëm waxatuma la ak ñun ñi mu njaboote dëgg ci laa ne euh, sama xarit yi ma àndal nii Youssou yabal na dëgg la ñoom nag ñu ngi lay déglu Pape am naa mbégte mhm. euh, yëpp mhm. di baalu ñëpp ak na comme ngeen ko yàgg di defee di baal ñëpp it euh, ndax li may damay faral di wax naan yàllaa njaboot te mën a muñ donc doomu aada ne mhm. lu teg sa kaw war nga ko muñ mhm. ndax Seydina Mohamed mhm. dafa muñ ba muñ loo ñun ñii et ma am mbégte nag di leen ziar quartier général di leen féliciter di félicité di ko bind muy buuba mhm. di suma rakk mhm. suma xarit mhm. félicité rakkam njaga félicité ñi ngànk kër gi suñu doom Birane Mamadou waaye nag fecc liir bu neexee yaay jaa jàpp sa mbagg ya euh, ki nga xam ni moom moo sañ kër googu euh, di sunu xarit di sunu doomu ndey di un jumeau Mm-hmm. ma yàgg ko di wax naan ko l'africain le sénégalais. Mm-hmm. ki nga xam ni nag waroon naa toog bitim réew damay fàttaliku ba ñuy tëgg espace balaas tubaab bi di ko laaj journaliste yi wër ko. Mm-hmm. ne ko ndax da ngay toog Europe pour jaay sa musique mu ne déedéet. sama réew laay toog. fa laay dellu ànd ak super étoile bii. di jaay sama réew. et donc taayiwul di ko def. ànd ak super étoile. ba teg lii yëpp mu teg mhm. muy Youssou di nit ku ñu naw mhm. ku Afrique naw ku le monde entier naw mhm. damay wax naan fas fasu course taamu nag ci naaru góor ndeeg bàyyi kafe la waaye doomay suukar boppam dëgg la sunu yaay soxna mbubb liggéey li yëpp sunu bàyyi ilimaan waaye Youssou deful ci soow mi xorom déedéet def ko suukar wallaay liggéey nday doom mën na koo yàq sax waaw wuti kook Sénégalais bu ne mu ne la am naa la mhm. jëlal sa wàll ci li ma yor kon nag ku mel noonu dañu war di ko féliciter tout le temps. di ko ñaanal. di ko ñaanal jàmm. Mhm. et ndax nag euh, li gën a neex. Mhm. moom mooy famille bu suude te dal na leen waaye quartier général Pape Cheikh. li ma la bëgg a xamal mooy àdduna yëpp moom la ñuy seetaan. suñu gént gi naxuñu. déedéet accompagner ngeen le monde entier ci weeru koor bi jërëjëf ku daan tëdd vingt deux heures mhm. puus nga say nelaw ba zéro heure wallaay wallaay te war a xëy liggéey wallaay wallaay donc bu émission bi amul woon maanaa mhm. loolu du am dëgg la mais dama leen di féliciter mhm. féliciter ñi toog foofu yépp euh, su ma limee dinaa jum wallaay di nga jum ndax ñi fa toog ñépp samay jigéen lañu waaw nekk nag ñu amaanaa ñu mën seen métier ndax métier day mokk. Mhm. métier da koy tarbi. xale yi de gàtt gàtt ñu fi toog ñëpp ku ci nekk def nga dix ans de rajo. wala quinze ans de télé. c'est ci gën a tuuti les cinq ans de télévision la def. dëgg la. wallaay. et ziar ndooy. Mhm. Euh, ndax nag li tax ma ni métier day mokk. njàng moo gis ci basi mi lay commencé. dëgg la. konte boo gis ci benn lay commencé teg ci ñaar dem ñett. gis nga bu mokkee. métier bi day yàgg. te li ma ci gën a neex moom mooy da ngeen teg seen loxo fi borom kër gi teg loxoom. Mm-hmm. àndul ak bruit. Mm-hmm. liggéey rek. bokk liggéey rek. bokk wax lu tuuti. Mm-hmm. def lu bari. wallaay tepp tepp gën yuree. gis nga nag. dégg euh, naa lool waaye sànq dama leen dégg. ku ci ne wax lu baax. lu mu wax ci waa jooju. ba dégg na ko. ah ko koo dégg. lu mu la wax. xam nga. jërëjëfati Pape. ok dégg rek wax yëpp gudd na ñu ngi kontaan lool vraiment dañ laa bañoon a dagg rek ndax dañ la ruus moom mooy. dañ laa ruus daal waaye daal mbay waxu ko wax. waaw xam nga ñambaas du yàq dara ci sër. yow rek la ñuy déglu. bu dul yëpp. waaw. ñu ngi doog a yegg ci réew mi. Mhm. ñu ngi fi jógee alxames. Mhm. wàcc vendredi minute def concert jóge fa daal di wàcc Bruxelles def Hollande tey ñu ñibbisi waaye ban taxawee aéroport dañu waxtaan si quartier général mu ne ma mbay jéey waaw quartier général nekk ne émission boo xam ne dinaa leen sargal yu soo wax loolu mais bu mu ñu woy nag de du leen woy xam nga nag moom fi mu mënee moo baax ok mécanise la yor. ok. yaa ngi dégg. yow tam suñu suñu daw ñëw yi suñu euh. xëlu ñëw yi yow it xam nga du ñëw neen di. jàppal ni tey la tey la lan tey du talaata tey du altine ah. suba di talaata la. Euh. jàpp leen ni le président Youssou Ndour kenn ku ci nekk ci yéen. Mhm. télé bi sax laay wax. waaw waaye rawatina quartier général. waaw. ku ci nekk dana la jox enveloppe bu duuf. amoo idée montant bi. waaye xam nga bu ma fi nekkee li ma la bëgg daal xamal moom mooy euh, xar taamu nañ ci laa dum. d'accord dégg nga maam. d'accord. jàpp leen ni. Uh-huh. mi ngi leen di dégg. te fii ma nekk nii. Mm-hmm. war naa gisee ak moom ci kanam. Mm-hmm. yéen daal. Ah. jàpp leen ni seen ceeb tooy na. <laughs> am na ñeex. voilà. bu tëddee mën ngeen a nelaw. ndooy baan ndooy baan ndoy baan mu ne avant korité wala après korité. <laughs> waaye yow avant la ñuy wax fii ci moom ay yëfam du bàyyi. Euh. ba nga sibiru. léegi lay doog faj. léegi ñun xam nga lu ñu bëgg. ah parce que dañu am ñaari xew. korité. Ah. ak grand bal le xam nga nag. <laughs> yaa ngi soog a wax te lu ci nekk dafa laaj financement. mani dañu bëgg financement pour le pour pour Korité. Euh. bëgg financement pour le 9 juillet grand bal. waaw Pape Cheikh sinon ke sinon Ndoye Bane yéeg pour fecc. Pape waaw. kuy seet yàlla bayam ci yonent bi looy def. da ngay taxaw. kon nag taxaw leen. macha allah boo ko Youssou Ndour. léegi may balaa ngay dem. mani waaw. le 9. Mhm, le 9 waaw. bés bu rëy la. Mhm. Sénégalais yi nañ ko defee woon le deux. Mhm. nan defaat lu ko parce que yokkaat nan ci sa. nu mhm. bëgg ñëpp dajaloo. Mhm. comme Sénégal la sargal. day day delloo njukkal Sénégal. dëgg la Sénégal rek waaye Pape. jàppal ni. seen ceeb daal tooy na. macha allah et puis et puis équipe organisation grand bal bi ñu ngi may xamal ni. billets sax yokkaat nañ ko ndax réservation yi ëpp. effectivement voilà yokkaat nañu ko donc ñi nga xamee ni euh, ñoo ñoo woote woon ñu ne leen billet yi jeex na yokkaat nañu place bi xam nga léegi salle dañ koy modifier mën nañoo yokk mën nañoo wàññi mais yokkaat nañu bie yi pour ñi nga xamante ni ñooy réservé guichet yi nga xamante ni fa la ñuy amee billet yi par rapport rek réservation yi buntu TFM la buntu RFM ak buntu Prince Art fu ngeen ci dem ba ci cosaan am na guichet buñ fa ibbi billet yi nag yokkaat nañ ko noo noo gisee loolu mbay waaw li ma ko gisee moom mooy. Hmm. Youssou Ndour ak Super Étoile. Hmm. salle bi dañ ko yokk kenn du ko wàññi. c'est le grand bal Mbaye Dièye. c'est le grand bal. c'est le grand bal Mbaye Dièye. wallaay c'est le grand bal. balaa ngay dem dama bëggoon nga commenter ak ñun photo bi ñu lay bëgg a wan. mooy ban. ana télé bi foog na ci saal bi wala ci néeg bi. est-ce Papa Cheikh. <laughs> waaw. <laughs> Michael Jackson. Evatra Evatra Diagne nee Michael Jackson. <laughs> kooku kooku sama sama jigéen boobu. keps keps caam nee na kër li nga indiwaat. waaw kër li la. waaw xam nga lii kañ la woon. 1987. 87 ah. Madison Square Garden. waaye États-Unis fa nga xam ne ponkal yu mag yëpp. Times Square. Ah, waaw waaw Madison waaw soriwul 42eem la. soriwul waaw waaw miin naa foofu. boo jàkkaarloog Pennsylvania. waa déggal lii 42 la. la. waaw waaw 42 ah, yaakaarloo daal Pennsylvania Hotel. Mali bu bu ma gënulul xam. <laughs> mais Mbaye mais Mbaye. ñoom dañ may jàng dañ may jaay gën a xam Amérique kañ laa mujjee gisanteeg yow. dama lay félicité. kañ la ñu gëj a gisee. ñu ngi mujj gisante. fan la ñu mujjee gisee. yàggul lool ñu ngi gisante baam. wax kay Brooklyn. prix yi ñu jox yu sundu <laughs> prix yu mag. waaw yi nga xam ni état États-Unis ku jël prix yi. yow mii lan ko jox. ku fa teewaloon Youssou Nations Unies. yow mii. keroog bi Youssou mënulee dem ku dem. yow yaa dem toog Times Square. ku jël prix yow mel num yow. waaw ah, que yooyu dafa jar a wax. moo tax dama la naan. waaw standing ovation. thank you so much. Eva Tra Eva Eva waaw. dañu wane grand bi ci ginnaaw gisuma nga commenté ko xanaa da ngaa ragal li mu déggee bañ a agsi. liggéey bi day yàq. commenté Eva soxlawul commenté jërëjëf waaw. fii. Mhm. xam nga lu doon fecc fii. Mhm. blocage. blocage à l'époque. moom la ñu doon fecc. 1987. en 1987. macha allah. Pape. Mhm. métier day mokk. wallaay métier day mokk. métier day mokk. foofu rek laay tëjee di baalu ñëpp. merci di baal ñëpp. jërëjëf di wax Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm. et puis et puis hmm. euh, dama la dama la bëgg a jox peut-être je sais pas tey ñu ngi fàttaliku Pakoti mais balaa Pakoti euh, euh, Awa Guèye xam nga mooy seen woy bu rëy boobu Awa Guèye jigéen ju baax jooju teel a dem te ngeen woyoon ko woy bu rëy ba. toorodo ba. yaayam nekkoon jàmbaar di as su daateel. wallaay moom itam génn naa àddina bërki démb. est-ce que. waaw pour nga xamal ko waa Super Étoile ñu ñu ji ko ndax jigéen ju baaxoon dinañ ko yëg. jigéen ju faw njabootu ngi seetaan ni njabootu ndey soxna mbuub surtout. Euh, fële ca euh, Castor. waaw kay waaw kay. waaw kay waaw waaw waaw. ca booru marché ba. voilà voilà merci. yal na ko yàlla yërëm te yéex ñu. amiin amiin dinañ fa jaale ji di ko jaale tamit doomam. waaw bi nekk Europe doomam bu jigéen. waaw nga xam ne fu ñu tëggi. Mhm. Euh, ak Youssou. Mhm. ñëw na fa. ndey soxna la tudd moom doomu aw. waaw boobu ah, waaw surtout asu daateel la. sa tëb la ak umutaal et ñu ngi koy jàllee maamam jooju. Mhm. E, di baalu ñëpp ak. jërëjëf di baalu ñëpp ak. Mhm. di ñaanal njiitu réew mi. Mhm. sunu borom may ko jàmm. wallaay yàlla ko yàlla may mook soxnaam. wallaay nga xam ni jógul ci def lu baax. wallaay sama première daam ci lay dox. wallaay wallaay yàlla na jàmm Pape Cheikh. wallaay gis nga. wallaay. ku mel noonu. ñaanalal ma ñaanalal ma ma itam docteur Cheikh Kanté. waaw waaw kooku nag xam nga. moom moom moom fa fa mu féete la ndox na safee xorom muy docteur Cheikh Kanté jàppale président et daal ñaanalal ma ñaanalal ma sama avocat Ndeye na bu ah mais kooku nag mooy sama sœur wallaay wallaay ñaanalal ma ko kooku may jël la valise ba cëri quinze wallaay ma jiit leeg Youssou nongi nongi ma nga woon ca biir kër gi donc yàlla na yàlla def jàmm merci jërëjëf mbay tey di la ñaanal ab yow. jërëjëf amin amin Sénégal yëpp rafetlu nan nag sa liggéey. jërëjëf jërëjëf. am na maana. Mm. teg nga ko ci teggin. Mm. kàddu yi rafet na. jërëjëf. dañ lay félicité di la ñaanal yàlla na la Seydina Mohamed teg loxo. waaye rakk Soda Bousso. waaw loolu am na sama jarbaat boobu. jeex na rakk Soda Bousso rek jeexal nay wax jërëjëf. yéen daal jàpp leen ni. waaw. président Youssou ngi leen di seetaan. d' accord d' boo suba mooy dernière dernière QG merci beaucoup Mbaye Dieye Faye <laughs> jërëjëf et puis euh, tey dañuy fàttaliku euh, Pakouti. def na 4 ans su ma juumul. wala 1 an astafurlah 1 an waaw 1 an. léegi nii daaw léegi nii daaw 4 4 juillet ci la génnoon àddina Pakouti nekkoon artiste boo xamante ni bu bu mu def lu doy waat loo xamante ni ci talentueux comme ni ñu koy waxee oui beaucoup de talent. Papa Kouti génnoon àddina ni ngi nii daaw euh, mu nekk at ci biir suuf ñu ngi koy ñaanal yàlla xaari ko àjjana yokk ba voilà et puis di jàll tamit euh, euh, Assou Sow moom may wax su Datel moo génn àddina maamu Umu Taal moo yaayu Awa Gueye mi Youssou Youssou di woy booba tey mooy yaayu Marie Gueye aussi voilà ak ak ak ak sunu xarit yu baax yooyu ngi koy jaar papay Maymuna papay Maymuna bi voilà donc ñu ngi jaar maamu Umu Taal Adjaratou Assou Datel yaayu yaayu Awa Gueye ba noppi itam suñu collègue collègue bi di Maymuna moom mi nga xamee ni mooy def euh, lépp lu jëm ci wàllu économie ak droit ci quartier général ak yeewu leen moom itam waaye juróom bu góor dafa génn àddina euh, Maymuna Gueye Bambolo yéen ñëpp ngeen xam ko donc au bu quartier général yëpp équipe bu télévision Futur Média euh, ñu ngi koy jaal waaye juróom bu góor boobu la nga xamee ni bëggoon lool Cheikhul Khadim ak njabootam donc ci barke koor gi ñu ngi koy jaal Maymuna Bambalo mu ngoog Bijou Ndiaye mi nekk France sax nee na moom tamit ci QG la bokk pour dóor bi waaw <laughs> <laughs> allez on accueille notre invité euh, nuyu Siteu d'abord doog xool reportage bi nga def euh, Ndoye Bane euh, ci férié sénégalais yi voilà ñu ngi lay nuyu Pape Abdoulaye Der Abdoulaye Der ñu ngi ñu ngi wax rek noo ñu gisee. hors déontologie la ñu def tey. non non waaw comme waxal nga ko sa bopp kañ atte nga sa bopp <laughs> fi parce que il me regarde déjà ba nga génn rek. Hmm. dinaa la wax dara <laughs> balaa nga ma koy wax moo wax la ko ñu ngi lay nuyu ab Ablaye Der nuyu tamit euh, Malal Junior Diagne. Malal Junior euh, Diagne euh, mi nga xam ni. Ah, non cër cëru làmb bi moom kañ delloo nañ la ko tey ak gan gi Siteu xam naa ni mm-hmm. laaj yi war na bëri mm-hmm. bokk na ci tukkeem yu bëri bi mu jëlee combat bi ba léegi ndax ci mm-hmm. diggante bi daa peese saa waay xam ni sànjaafu na loo xam ni moom mooy loolu dinañu wax ñaata yoon la tukki ak fu mu demoon ah, lan la fa lan la fa uti woon ñàkkul ak ah, ban xeeti bëri la nar a bëreek Sa Thiès mi nga xam ni client la voilà loolu loolu moom dina ci tontu ci kanam ñu nuyoo rek. ay ci nuyoo ñu ñu ziar gaa yi dem ba xëdd koor gi jeex na. amul solo waaw ah, tey de moom ñaari fan rek ci des. ñu ziar di ziar ñëpp ñi nga xam ñu ngi toog jàkkaarloog seen télévision di mm. nuyu waa plateau bi bu baax a baax a baax. di leen ndokkeel bu baax itam mm. di am mbégte. Mm-hmm. di fi di fi joox léeg ñëw sàppali dem ndax domp sax ci sat la bokk. dëgg la tabarkal dëgg la man léegi waa RFM bu ñu satatul ci télé bi rek du ma leen sotal. du yàgg RFM man ak yow la. waaw da ñëw consultance et je dis ça à tous les téléspectateurs bu ngeen ma déggul ci rajo bi rek moom moo tax parce que gëj na ci télé bi. donc bu ñëwee rek léegi officiellement fa ma woo ma wuyu jeex na kon kon yow tam fa moo moo ayca ñu jàll kon ci euh, gëstu bi euh, nga xamante ni euh, moom nga def tey jëm ci Sénégal ak ay jours fériés waaw Sénégal ak ay jours fériés ma xam naa soo waxee ni ni Ndoye Bane wax dina mais Sénégal nanguwu ñoo liggéey mm-hmm. nanguwu ñoo Ngoné Ndiaye Géwél daf ma yónnee benn kol mooy col yooyu ñuy colee xaw ma këyit mm-hmm. col force la tudd xaw ma daf ma koo jox pour man lu ne la koy doyee da ko bàyyi sama kër ma jël col bi woo ko téléphone ne ko lii pour la la mu ne ma damaa bëgg bu ndooy wax rek nga koleel ma gémmin gi <laughs> Ngoone Njaay gis nga gis nga non Ngoone Njaay baal naa ko mais mais Sénégal euh, nanguwuñoo liggéey soo xoolee at mi 300. non eh, bul ma bàyyi nag di généraliser bi nga war a bàyyi parce que boo nee Sénégal ñoom ñoom nanguwuñoo liggéey. damay sénégalais te ma xam liggéey donc ñu ñëpp xam liggéey rek. non non non du du du du généraliser mais kon boobaa kon Sénégal am na ñu nanguwul te liggéey. c'est comme dans tous les pays am na ñu nanguwul liggéey. je m'explique ah. àggaleel année bi 365 jours la ma laal. 365 jours. 52 semaines. donc 104 week-end moo ci nekk. 104 samedi ak dimanche. <laughs> ka mën a calculer. 104 samedi ak dimanche yi ci nekk. Sénégal am na 15 jours fériés soo ko boolee ci 104 yi mu jox la 119. cent 119 jours yoo xam ne sénégalais yi duñ ko duñ ko liggéey ci 365 jours ce qui veut dire que année bi yi ñu ngi liggéey 246 jours. ah sénégalais yi parce que yow da que parce que férié yii ma lay wax nii mooy li nga xam ne moom moo moom moo officiel. donc li ñuy wax mooy ñu ñu dënk seetaan élément bi doog a ñëw xam man mosoo fee indi lu ñëpp d' accord normal. que ñëpp mënuñu d'accord. je te je te jure carte générale bu continuer woon di nga mës a indi élément ñun ñu song la. <laughs> on regarde mais ça amène de l'ambiance noonu la <laughs> c'est de la oh, ça amène de l'ambiance noonu la. li fi nekk ci fête ak ci événement religieux mën na fukk mën na bis tabaski tamxarit korité bu ñëw ci chrétiens yi am nañ Pâques am nañ Noël ak yeneen événement yi nga xam ne nii ñu ngi koy def mooy ay gàmmu yeeg cant yeeg ziar yi loolu lépp boo ko xoolee te benn bu nekk di ànd na ay dépenses yoo xam ne maanaam ni jéggi na dayoo. boo demee dans un pays comme la France ñoom feetu musulman yi rek la feetu chrétien rek la ñuy feete dans un autre pays comme la Arabie Saoudite feetu jullit la ñuy feete mais Sénégal ñun dañuy feete feetu jullit ñi ak feetu chrétien yi muy ñaari régime ci benn ci benn état de ce feet feete dafay bëri. c'est-à-dire que dañuy liggéeyul bay jël feet. liggéeyuñu. non dañuy liggéeyul bay jël feet cest à cest à ñii di liggéey war liggéey huit heures de temps par jour. Uh-huh. boo calculé lu liggéey si journée bi du mat une de temps. mais ñooñu mën nañ bañ jël fête. nuy jëlee fête. je pense que en fait euh, la responsabilité incombe aux autorités. ñoom ñoo war a xool nan la ñuy def pour ñu def benn calendrier sax boo xam na ni c'est-à-dire assemblée da koy voté mu leer la ni c'est-à-dire chaque année lii la ñu am comme fête mais lu xew ñu fête. administration liggéeyu ñoo moom xam xam nga yow mi sax yow mi sax boo xoolee TFM mais yéen pratiquement yéen amu leen fet parce que parce que dañuy da ñi liggéey dëgg dëgg dëgg fet duñ ko tal jamono ñu toll nii mais en tant que père de famille fête yi ñëpp lay laal tout le monde Sénégal ñëpp képp koo xam ne ne am euh, euh, ne nombre de fêtes yu fi am am na ñu ne 13 am na ñu ne 14 am na ñu dem ba 15 donc kooku dafa toll si au niveau de la moyenne mondiale ndaxte am na pays yi nga xam ne euh, jour férié mu ëpp fuuf la am Sénégal ndaxte boo jëlee ku mel ni comme euh, Inde nombre de jours fériés fa la ëpp si àdduna maanaam vingt et jours par an nga jël ku mel ni Chine Chine nga xam ne bokk na si économie yu gën a dox si euh, àdduna bi foofu di nga am dix sept jours par an ku mel ni comme Turquie kooku jours par an la aussi maanaam pays yi nga xam ne nag euh, peut yu am Sénégal moo ëpp yu am seen dëkk lu mel ni comme États-Unis foofu jours par an la lu mel ni comme France am nga jours lu mel ni ñu ngi Sénégal mi ngi aux a ñàkkal lu euh, euh, euh, xam ne waroon nañu liggéey duñu liggéey donc machine de production mooy nag dina lu ñu produire a fës lu gën a am mooy bu nekk am na lu si positif am lu si négatif aussi effectivement loolu mooy élément bu négatif mooy le fait que produire ñu donc perte lay doon ah ah. mais aussi am na gain def naa gain bu gën a am solo bi nga xam ne ñoom bu ñu nee férié wala bu ñu nee liggéeyuñu ñoom dañ siy profité uh-huh. ba si njëkk mooy lu mel ni comme euh, transport uh-huh. te xool nga ni euh, bu fekkee neneen féer yi am na nit ñi war boo waree jógee euh, la plupart du du par exemple secteur hôtelier souvent bu ñu nee par exemple nii am nañu mel noonu ñu si bëri des fois dañuy dem si dans les zones touristiques pour mën a dem maanaam adonné aussi activité loisir te ah. kooku dafa li nga xam ne vraiment am solo ah. beneen bi nag mooy euh, boo xoolee lu mel comme commerce ndaxte bu ne férié xëy na côté yow mi liggéey kat euh, moment yi ngay am pour mën a dem def ay shopping mën a def jënd et cetera ça veut dire que ñooñu jaay seen produit nga xam ne jotoon ko produire avant donc kooku rek une activité la si ñoom voilà bis bu la xasee raw moom euh, euh, jàll na. waaw ah, donc les avis sont partagés. da ngay nelaw ba bés boobu raw la. ñun li ñu d'accordul rek mooy nga ni Sénégal. parce Sénégal boo ko waxee. génne woo ci sa jabar. waaw génne woo ci sa tonton. Uh-huh. génne woo ci sa mag. génne woo ci sa rak. suñu nanguwul suñu nanguwul liggéey rek ci lañ bokk de. waa ñi nanguwul liggéey. waaw su ñu nanguwul liggéey su ma amee sama frère muy tëdd di nelaw te liggéey. su jógee jabaram am doom mu toog jël feet jël jël repos deux jours trois jours parce que jabaram dafa am doom. Mhm. mais ci la bokk. fii sa jabar day am doom doo liggéey. Euh, nga am dëkk ah, mais yeneen dëkk sax ñu ngi jéem a yokk sax pour góor am congé paternité non non da ngay da ngay dem ci bureau sax di wuti këyit ah, ah. nga dem di wuti këyit da ngay am problème am këyit boobu parce que ña nekk ci bureau ba dañoo liggéeyul duñu xëy heure duñu wàcc heure ba pare bëgg ay fête man duma d'accord ci sénégalais bi nanguwul liggéey. Mhm. parce que déjà li nga wax nii ak férier yeeg yooyu administration la laale. le mhm. secteur informel xam nañ ne euh, dafa am solo torop ci réew mi. Mhm. déjà lundi ba dimanche embouteillage fu mu am xale yaa ngi ran daw. ah soo waxee ne am na ñu nanguwul liggéey. dama koy nangu parce que am na ñoo xamante ne dañuy tëdd 6 heures du matin yeewu 6 heures. si dafa jar ay jooy li nga koy wax waaw déedéet jooy ma damay waxee xol. waaw noonu laa. <laughs> Uh-huh. waaye man généralisé bi laay bañ ah. administration sénégalaise ok soo waxee férié yi bëri na on est d' accord mhm. mais sénégalais tamit wax dëgg yàlla am jom te dañoo na ko fekk si Ndoye dëgg la ak Zeyna bu ñu rationaliser bu ñu généraliser mais dañu war a rationaliser jour ah. de fête yi ak ah, jour de vacances yi mhm. euh, dañuy waxante dëgg da ngay xool bu xew euh, fête jubloo bu ñuy jub ci ci ay korité wala ci ay tabaski wala ci yenn fête yi mhm. dañuy jël ay vacances yoo xamante ne deux jours ou trois jours avant dem seeni di dañuy pénaliser yow da ngay ut këyit boo xamante dafa nekk ci urgence nga dem ci administration fonction publique bi doo ko fa fekk donc li muy tardel dëkk bi moo ëpp li koy avancer mais je pense que comme ni mu ko waxee ñu voté loi boo xam ne dafay rationaliser ñu jàpp ni que dëkk bi kat tel nombre de jours de fête moo ci am et ku ñëwul liggéey si aussi moom ay sanctions yoo xam day daan sa kaw mm. mais y a trop de laisser aller ci période de fête ça je suis d'accord euh, ñu gone yi gën gu bëgg liggéey moo ëpp ñu gën ñu bëggul liggéey gone yi gëm liggéey ñoo ëpp ñu gëmul liggéey sa xaar me nee na eh, waay balaa nga nee na am day fay fekk yaa nga fa waaw xale yi muñ leen ku leen juróom yaram leen waaw waaw xam nga anniversaire de dof loon ni tey la anniversaire u Ndiaye ah. <laughs> Doudou demal waaw ah, non c'est juste pour euh, ba kii euh, Bana uh-huh. ci li mu wax ci dëgg mais pas wax ni Sénégal waaye duñu liggéey gëm nañ ko mën mm. nañ mais nag peut-être xam nga yow liggéey la yóbboo sa grand bu bu rëy beeg sa caay ji <laughs> ba toog fi ba heure bi <laughs> liggéey la ko yóbbee quoi mais c'est juste pour lancer alerte autorité yi tamit mm. ñuy voter loi wala ñu def benn def benn loo xamante ni vraiment dañ mën continuer tamit évolution la laa gis c'est tabaski yi doon am yi doon am 1960 wala dara. Mhm. tabaski war a mën a am. 1960 yi doon am waratul évolution la dëkk boo gisee léegi surtout Afrique. ñun mhm. dañu soxla suñu jeunesse suñu mhm. génération bii nga xam ne moom lañu am te am potentiel yu am solo mooy maanaam dañoo am population boo xamante ni ci ëpp ay ndaw lañu ndaw yooyu nag la ñu war a leen maanaam di leen gën comme ni ko kii yaa doon waxee sax formation la liggéey wan leen ay yoon yoo xam ne lu ñu mën a ñu jéem a wàññi tuuti ay feet ak yoo xamante ni vraiment du ñu jëmale kanam. yu amul sens quoi aussi waaw waaw waaw. c'est li may dolli damay wax ne li xale yi wax la waaye dafa fekk ne secteur yu bëri la secteur yëpp la. Mm-hmm. sooy xool ba ci nit ñi nga xam ne ñoo amee profession. libéral wala ñi nga xam ne ay créateur la ñu yor ay atelier ak yooyu mhm. da gis ne tailleur yi dañuy bëgg di fayeeku mais bëgguñu liggéey nit dana ñëw ne la sama maam moo gaañu gaañu bi mot na un mois et puis mu toog facilement dix jours du ñëw liggéey si mhm. Mhm. et boo demee itam fu ne di nga koy gis mën nga dugg ci benn télé gis sama waay cadreur yi ñëw ñëwuñu wala ñu war a tourner benn émission nga gis ne cadreur yi agsi ñu lan moo xew lii moo amoon dañu guddee wàcc wala des choses comme ça ça moo tax yow sa musóor musóor bi finalement donc ko mujj fiic góor gi ñu ngi fi. kon dafa mel ni dala neex est-ce que neexu la ah, ko <laughs> yàlla na ko yàlla may ay bras yu bëri. doy <laughs> waaw kon ñu ñu ñu ñu gàttal rek kon li ma ci jubloon mooy euh, pour que euh, nguur gi ci boppam ñu xoolaat jour férié yi nga xam ni moom moom moom moo officiel pour que ñu jéem a xool nu ñu ko mën a wàññee parce que dëkk boo la dëkk lañ nekk boo xam ne dëkk boo xam ne amul doole maa ngi waxtaan ak mbër léegi sànq mu naan ma dëkk bi moo amul liggéey man leen dëkk bi Sénégal gi am na liggéey xale yi ñoo amul formation. man man damay xëy suba nit ni ma Ndoye Bane yaa ngi ci télé bi wutal ma man la loo jàng. ngan ma CM2 laa yem wala ngan ma BFM laa yem. loolu kooku soo amee BFM wala nga am bac te amoo benn formation. kenn mm-hmm. mënu laa wutal liggéey. Mm-hmm. te nit da ngay ngay gis ñëpp ku ñafe ñafe ñafe bañ wutal ko liggéey Pape Cheikh mm. du respecté liggéey ba. loolu dafa bari ci dëkk bi. donc looloo tax ma ne ñenn ñi ci kon bokk ñenn ñi ci Sénégal yi. Mm-hmm. nanguwuñoo liggéey moo tax réew mi tardé. voilà ñenn ñi ak xeeb liggéey. xeeb voilà merci merci. <laughs> lu Gora Ndiaye wax. Gora Ndiaye nee na xanaa da nga naan ruyu xale. <laughs> merci beaucoup Ndoye Bane ñu ngi lay gërëm bu baax en tout cas comme on dit tout temps euh, bu ñu dee jóg job euh, nii euh, soxla bu teew moom ay nelaw faju ko. voilà ay nelaw fajul ay soxla bu teew jërëjëf Ndoye Bane mën ngeen amaat replay yëpp ci YouTube bi slash TFM ayca ñu tàmbali jàkkaarloo bi ak Siteu moom mooy ganu quartier général ayca. tàcc ana yëf yi dégg nga loolu maa ngi lay fay dégg nga fi gars yi génnoon léegi technicien yi fi la bëggoon yóbbu dégg naa loolu waaye li may njëkkee mooy di wax ne jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Amadou hmm. ngi nuyu ñi fi nekk ñëpp ko tàmbalee ci soxna si yaakaar naa ba ci ngóor si ah? ma ko lu ko tàmbalee ci soxna si ba si ngóor si. maanaam dama wër nuyoo bi. maa wër bi. waaw. ndeysaan apprécié na ko de. li may wax mooy maa ngi sant ñi ma dëkkal di sant waa jaamu gën di sant suma sëriñ bi sëriñ Sidi Mbacke. suma sëriñ maa ngi koy sant bu wér sama sëriñ sëriñ Sidi Mbacke di sant jaamu gën gi ma dëkk di sant nag montagne ñëpp képp kuy bëggee si temps daal bi Bamba. maa ngi lay nuyu. man li ma njëkk seetlu ci mooy dafa am benn évolution bu ma gis ci sa communication. parce que bu ñu delloo si ginnaaw ñaareel bu la joxaan kàddu da ngay nuyoo nii mbër yëpp di nuyoo. tey da nga nuyoo neneen. daa mel ne ni am na lu ñu def ceew lu bokk ak la nekkoon ci yow. nga bëgg a def si man mooy xale dafa màgg def jar màgg def jar soo ko déggee mooy chaque jour da ngay wax ci fula. da ngay def li ngay def ci fulla dem sa yoon. nit ñaanoo yàlla sa andi nga toll si benn niveau. Mhm. dëgg loolu dëgg. waaw ni ma doon nuyoo laa nuyoo rek sant Serigne Touba dëggal ko ko nuyu ñëpp. xanaa kay li la si jaaxal mooy tàmbale ko si soxna ko ba ci si. waaw parce que loolu da nga ko remplacé maa ngi nuyu sama sama baay nanga nanga mais bon loolu loolu beneen beneen con euh, ab la woon rek. Mm. surtout démb nga jógee États-Unis waaw démb laa ñëw. loo fa woon. li fa ñëpp di uti. man de xamaguma ko wax ma ko uti naa fa xel uti naa fa doole uti naa fa jàmm aussi pour man. loolu lépp am na ci réew mi de. waaw waaw dégg nga gars yi dégg nga réplique général bi. waaw dama xam ne loolu moo nekk ci nit. ndax dama la ne uti naa fa lépp. Hmm. te loolu moo ëpp solo si doomu aadama. Hmm. mun na fa wuti leneen loolu. ban defal ndànk. da ngaa demoon États-Unis li mu wuti ci États-Unis ak fii ci réew mi la ëppee. bëri nga dendal ko mu kii fu ma ko dóor ñu tabax ko. kii. wax dëgg nag lu mu wax dëgg la Sénégal ruyu xale la am moom nga naan ba tool nii moom xëy na leneen leneen lu wuti Amérique. ah xamul leneen bàyyi ruyu xale dem wuti lu ko gën a kii yëkkati. Eh. parce que ñoom dañuy dem Amérique di wuti yeneen. Eh, wax leen eh, di àtte leen maag moom ci yooyu rek mbër la. ku jógee Amérique boo ñëwee da ngay kii interview bi du yomb indiwuñu ko fii pour di ko raay ah. oui ko fii pour di ko raay. Ah. dañ koy kii. man leen laa lay xamal. man sama dara mosul yomb. Ah, kon te yaakaar naa ne fi ma xuus moo gën a miir bi ngeen xuus. man hmm. alum paayan laa xuus. muy foofu alum. alum paayan. fu mu paayan. ala fu sori la ne. xam nga ne ku dul ndaanaan doo fa xuus. mooy ma dama fa sànq mooy Papa Ndiaye coppet way macaroni payan fa la ñu defaree macaroni. non non kon yow macaroni nga fa wuti woon. déedéet danaa jum de alum payan. fii foofu. maanaam foo xamante ne gaynde fay ne. maanaam ah. neexul si côté yëpp. ah alum payan. payan bi fan la jógee moom. ban dëkk la ay xale yi ñoo ko fent xale jàmm gan. ah alum moo tax ñu naan alum payan. alum payan très bien mais ñu gis sa carrière xale yooyu nga wax léegi. bokk nañ ci li tax mu gën a gaaw a jëm ci kanam parce que demoon nañ bu bu ñu rek mbooloo mu bëri te ñu ci ëpp say génération la woon. est-ce que loolu bokkul ci li la propulsé ba nga nekk au devant de la comme ça. waaw surtout mooy ñii ma àndal ak sama xarit yi nekk si ginnaaw. Hmm. waaw lii de yaakaar naa ne li ma ko may xaw ma ko man li ma foog man hmm. dama yaakaar ne wàcce sa bopp koo gis joxalum moom hmm. eh, loolu dong laa foog de. mais dañu gis tam siiw boobu noonu ngay siiw ànd ak nit ñi bëri lool léeg dafay jur xët-xët saa boo demee ci ndaje gis nañ sa diggante ak Sa Thiès bu ñu ko taxawalee ba léegi mënu noo tëgg seen jàkkaarloo yéen ñaar parce que saa bu nu ko tëggee fitna jib ñu bëri ñu ni ñi ngay àndal bu ñu ñëw ñooñu daal safar soo xam ne fu ñu ram mu tàkk. waaw loolu moom du ma ko nangu. du tax doo ko nangu. waaw ndax li tax du ma nangu du ma nit kooku. Mm-hmm. man nit yi jàmm te jàmm laa dëkk man fi ma dëkk jàmm gën la tudd jàmm gën. Mhm. waaw man foofu laa dëkk mais nag bëgg yàlla moo koy def. Mhm. man li ma nit ñi bëggee du man. Mhm. bi su ma jàppee ne man la rek wàcc naa yoon bi. Eh, suñu borom moo ko def te bés bu day mat waaye man ku ma yëg ma yëg la parce que man waaw Siteu Sa bu ñu xalaatee sa bu ñu xoolee Sa Thiès ni mu toll ak Siteu lan moo tax nga song combat boobu. sañ bu wér bu dëgg boobu noonu képp moo waral loolu. Mm-hmm. bu dee fit rek moo la dugal ci combat bi Siteu noo xalaatee bëree ba génn ci quand ndax ni la Ndiaye wax ni léegi Mamadou Ndiaye ñëpp favori bu dee ci kattan ak ci taxawaay quand même nañ waxante dëgg Sa Thiès lañ ko jox favori ci combat bi noo xalaatee bëree. ba génn ci souvent dañuy gis ni yow sa combat à l'usure ngay dem bu ci mujj mm-hmm. wane nañu ko Zarko donc te ki ngay bëreel en général moom it une minute mm-hmm. mu daan la wala nga daan ko ngeen daan ku nekk dem ñibbi donc du même style yi te gabar yi it bokkul noo xalaatee mm-hmm. ba rek moom génn ci waaw lu ma xalaatee bi su ma ko waxee amatu sens pour man li ma xalaat su ma la ko waxee yow ma wax ko fii amatul benn sens xam nga mbër ak ay stylam ni ñuy wax ak ak ni ma wax ku ci am nga say tegtal ak say xàmmee waaw léeg-léeg da ngay ñëw ñu naan la comme Lac bi mu fi jógee keroog dafa nit Yékini ñetti minutes du ma ko def ak moom su ñëwul danaa ko jëli mhm. loolu la laaj yi di jëriñ tamit dëgg la pour ñëpp xam waaw laaj bi moom na solo waaye li ma la wax li ma bëgg def kon li nga ko dencal daal doo ko wax kenn incha allah ba bis ba le 30 soreetul kuy ku dem gis ko waaw loolu laay ñaan yàlla man Siteu dama ko bëgg a laaj rek xam nga dafa am style bu particulier Euh, ba ci bàkk buy tuus buy def lépp Siteu euh, bandkat la bu garaaw a garaaw bokk na ci li nga <laughs> xamante ne tax na mu am soppe dëgg la ndax yi muy génnee dafay eh. dafay neex lool day jaar yoon eh. Eh. Euh, ba noppi tamit ci kàllaama bi bokk na ci Siteu am na façon bu mu doon waxee ba nga xamante ne sax moom moo fi yanu kaamir tam indi ko ci plateau télé di waat mm-hmm. waaw ndax am luñ ko doon jiiñ benn Siteu euh, li ma la bëggoon laaj mooy saabooy def combat da ngay dugg ci gardu ki nga xam ne mooy sa adversaire bu baax euh, di nga koy tutuwaaye bu baax a baax a baax euh, andi ci loo xamante ne nit ñi seetaan sax da nga naan ay kii taxumaa jóg waaye façon bi mu koy defee day doy waar lool ndax tamit ñi ngi naan léegi Siteu dafa am maturité est-ce que stratégie boobu ngay ngay jël employé ko ba tey jii ci li nga xam ne moom moo di combat bi. waaw li may wax mooy dinaa ñëw te li nga njëkk a wax mooy ci wàllum pecc bi waaw loolu yàlla moo ko man doomu séeréer laa man congaar laa juddoo congaar maanaam foofu laa dëkk yee li ma la mën a wax mooy man doomu séeréer laa waaye dama yaroo ci kër géwél man suñu koñ dama dégg waaw dégg sama yëf la waaw nee na dégg sama yëf dafa neex micro bi kat ñëw man dinaa ñëw waaw dinaa ñëw ndax xam moo tax man li may def du man kese du suma xel kese damay joxe li ma xam ñiy joxe waaw te dama ci ànd ak sama benn xarit ji li man ñi may àndal ñëpp mun naa la ne ñoo defandoor ba ñuy nekk xale bu nii. waaw boobu ba léegi yaa ngi wax te waxoo waxu écurie ban écurie nga bokk. non xam naa ko question la ban écurie nga bokk. waaw loolu petit sax lañ koy naawee. Lamsaar léegi kan mooy tête de file bi. tête de file écurie bi Lamsaar mun naa la ne nees. Tidiane Faye. non non écrit yëpp dañuy am ku fa jiit laay ñëw voilà ñun dañoo nekk benn say. waaw man ma ñëw nekk xale bu ndaw ñëw fa. waaw ba may ñëw Lamsaar nees moo ma téye si loxo indi ma foofu. waaw léegi man dama seetlu ba nga commencé am victoire ba léegi Lamsaar kër bëreetul. yow donc yaay bëri. loolu tax tête de file la léegi man moom maa gën a nekk as tuut. kon bi léegi. déedéet loolu ma ko mos a nam. parce que nees bëreetul. Euh, nees a ngi bëri Tidiane Faye bëreetul. Fëgg la bëreetul yow donc yaay bëri. ñaari at xaw ma ñetti at ngi moom doo ngay mbëre ah may xaw ma lu xew. di daan waaw mi ngi daan mais ñetti des bëreetuñu xaw ma nu mu demee am ah. solo daan waaw ñetti des bëreetuñu. waaw xam nga leen daal la bëgg a yëgal foofu. waaw chaque jour rek su tontoo si foofu rek mun naa juum. Mm-hmm. kilifa du yow yaa koy def sa bopp. Mm-hmm. yàlla. la koy di ay at ngay bañ mel nee ba mag Pape si nii Pape Cheikh bi wala ma mag la. dëgg la aduna day neex rek day naqar rek mais sa ginnaaw la war a toog. lamsaar dafa am njiit mooy ñi ma la wax ñi Tidiane fay ñoom Nicorel ñoom nees ñooñu ñooy samay papa. man maa ngi seen ginnaaw mais parce que bëreetuñu. Hmm? mais ñooñu lan saar muy moom ah. ay kilifa en fait. a gis yow seen anoo lamb léegi ñooñu ay manager lañu ay kii lañu quoi. voilà je je pense que. mais ñooñu ay manager ñooñu kenn bëreetu fa. c' pour pour coller ci li Ndoye Bane wax ñi nga xam ñoo doon porte drapeau écurie bi. Siteu Euh, avant ngay ñëw Tidiane Faye Lansar ah, ak Nees euh, Nees mm-hmm. Fëgala Nicorel ñoom ñëpp daanaka mën nañu wax nii dañoo tegle ñaari année yoo xam ne dañoo def ay année blanche lu waral loolu mais li fi ma koy njëkk teg mooy ci borom suñu borom laa koy njëkk teg li ci topp mooy promoteurs yi dañoo faible maanaam promoteurs yi ni ñu doon avancé lamb ji ni doon doxee par rapport ak léegi doole ji newatu waaw maanaam xam expliqué financement bi dafa des daal. waaw man pour man loolu la. waaye ba léegi ñoo ngi entraîné ñoo ngi contact te yàlla xam na ne àdduna du neex moom a génne fa sama xam-xam chaque jour ñooy génne jox ma. waaw Siteu tey nag Thierno Ndiaye laay indi. Siteu ngay bëree doy waar. koo xam ne du bale say baayam. Balla Gaye di magam. ngeen fas yéenee daje ci bis boobu yow nag nga war a jóge jàmm gën ñëw ànd ak waa caaro yi Siteu bëri foo ko donnoo ak foo ko jële ci say baay wala ci say maam wala ci say mag ba càpp ba paa jàpp la waaw li may tontu foofu mooy man mbër laa te mbërantuuma kaamil bëri ci fan côté bu ne mbër nga ci fan da nga koo donn ci bu ne jàng man sama papa hmm. sama papa mbër la man sama nijaay Abdourahman Abdourahman ban Jegaan ah, ok kooku sama nijaay la moom sama yaay ñëw bokkoon ndey baay moo nekkoon mbër yaay jàmme hmm. doon bëri kanilaay gambi si xam bëri laa lay wax de. Mhm. beneen bi si topp man dama juddoo dëkk boo xam ne seen cosaan amuñu leneen loolu ñun bari la ñuy foowee suñu dëkk. gars suñ suñu jàngee ba gën relation dañuy dem bëri ñun tefes ñun si il lañ dëkk jangwaar. Mhm. andun laa dëkk jangwaar ginnaaw. dina séeréer refum mhm. pour en cas ci ngàttal. ma yemagum foofu. ba léegi man dam koy laaj rek ci ci ci ci bëre bi bu ñuy jàngat bi nga mujj dajeeg Zarko ni ma la wax à l'usure la bëre bi dem metti woon na trop mais da nga bëree ci làng gi seetaan seetaan naa leen donte ñoom malal ñoom a gën a kii ci làmb jekk yooyu ci làng gi nga doon dem lu bëri. loo xam ne ginnaaw saako ya moom xam na fi may waxee. loo xam ni stratégie boo lal lal la luñ la xelaloon la wala ki nga doon bëreel moo laaj loolu. waaw làmb su nekk rek ak lu mu laaj. te làmb lu mu laaj rek dama ko koy jox man su ma suñu kër dama naan làmb ji lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg géey suñu kër la may fekk. su ma juumul dagg nañ ko ñetti yoon. moo tax mooy li ma wax. stratégie la. wala lu mu demee. non lu mu demee mooy làmb ji lu mu laaj man sportif laa man ñëwuma pour bëree. ay bëgg lu neex ni kii pour benn fan wala ay sax saax yi déedéet hmm. man damay ñëw nga ray ma wala ma ray la dëgg la man gaynde laa gaynde laa lay woon jikoy gaynde laa lay woon tamit mag mu gën mais ki ngay dajal moom day attaqué moom moom lu mu gën kaa gàtt moom mu dal sa kaw mm-hmm. loo fas yéenee bëree xanaa yow nag moom seetlu nañ ni yow toujours défensif en général da ngay taxaw di xaar mais moom ki ngay dajal moom dafa dafa moom da lay attaqué il est très technique c'est vrai eh, maa ngi koy xaar maa ngi toog di koy xaar ndax xam lu am solo man dama ñëw fii toog maanaam moom waroon nañoo toog waroon nañoo taxaw. Mhm. mais boobu léegi suñu borom moo ko sottil mhm. suñu promoteur tamit mébétul lu doon doolu mhm. mais jaam ak dogalam. léegi man Siteu euh, li ma la laa bëgg laaj ak li internet ci di laaj euh, mooy ne yow yaa ngi bëre ak Sa Thiès. Mhm. ñëpp def la outsider ne Sa Thiès moom mooy favori bi. Mhm. yow loolu nan nga nekk di ko di ko di ko dundee est-ce que nangu nga euh, moom mu doon na favori surtout. waaw xaaral ma bi enjeu bi fa. waaw xaaral ñëw maa ngi ñëw li kiy wax laa yeggali. Mhm. suñu promoteur boobu suñu borom dafa def lu mu mébétoon suñu borom defu ko mais nit sooy ànd ak moom yu neex. su méttee dala fa war a fekk mais ndax yàlla bindul chaque jour muy neex mais ñun ay jaam dong lañ mënuluñ suñ boobu dara la 30 ñoo ngi koy séntu ñoo ngay wax mais xamuñu luy am. Mhm. mais yàlla na ko suñu borom moo amiin amiin. yaa ngi dégg mais Sa Thiès damay bëreeg moom su ma nawle la. te mhm. façon communication bu nekk dégg naa ko man du ma nekk bon man ni ku baax laa dama juddoo si famille bu baax famille bu baax laa juddoo. te dama nekk xale mais. sant yàlla. ndax xam naa fi may waxee xam naa li ma war a wax xam naa bët bi mu nit xool man soo ma xoolee xam naa li ngay wax ak man. Mm-hmm. na rafet làmb moo ñu boole nañ bëree mais nag man maa ko njëkk a toog ah du ma wax leen luy ñaaw du ma wax leen lu yàq. Mm-hmm. te papaam tamit dégg naa ko mais li ma koy wax lu ndaw mooy man Double Less moo ma jur. waaw xam lu tax mu jur ma suma atu papa la am sam papa. bés bu ma toogoon parce que yaa Rasulullah maa ngi koy ñaan tëdd suñu borom hmm. mais sam papa tey su doon dund tey may bëre keneen sam papa wax si dinaa ko ne papa njabootal ñëpp waaw mais nag lu mën a am rek nañu jël toor te ko sama kaw ndax bàyyi la te bàyyi moom chaque jour ak nu mu a demee rek bàyyi la mais li ñuy wax ak li ñuy jëf waaw amaana wax ji sax dafa war rafet waaw mais waaw sant yàlla daal. si te kontaan nañu nun nag yàlla dafa def dañuy ay ndey. Mhm. boo waxee làmb ji suñu fit dafay xaw a dem tuuti ndax dangay gis làmb am ñu sol kaar ba mu fees. Mhm. ay doomi jàmbur nekk ca kaw. Mhm. léegi saay ñu wadd ca suuf. lay am daa di am. te du gënal kenn. loo xam ne ca njalbeen amaan na buñ ci waxoon du am. ñu bëggoon euh, yéen ñi nga xam ne yàlla dafa dogal ngeen am ay soppe. ba ngeen jaral leen lu ne yaa ngi fi toog ñoom ñëpp ñu ngi lay déglu violence yi ci làmb yi lan ngay wax sa soppeek sa xarit yi ndax da ngay am influence ci ñoom lan nga leen di yeddee balaa noo àgg ca bés boobu. Mhm. ñaareelu yëf bi ña nga xam ne itam ay nitu diine la nu noo koy laajte du sax laaj maanaam dañu wax nañ leen ci wax tuuti ndax dinañuy gis nit euh, sopp Cheikhul Khadim ba sol t-shirt am dem ca ca arène ba yàlla def mu daanu ñu gis kanam gu yànj googu macha allah ci ci ci sa yaram ak daanu beeg yooyu du leen gënal waat yi bare yi ci biir arène yi nga bëgg Seydi Aboubacar lool sopp t-shirt bi tam waat waat yi rëy daa dee fekk sa bopp ci suuf nee na nu rafetlu ñu ko ma ni nag naa la ko àggee ndax ñun yaay sunu soppe bi ma la mujjee gis yoonu ndar laa la gis nag policier ba arrêté la fa laa <laughs> mbër sax bu ko policier arrêté day am nu mu def mais waa yaa ngi koy laaj ndax xàmmeewu la waaye c'est bien yar gi gis naa ko macha allah yàgg na léegi mu toll ci at ak lu topp waaw waaw gis naa loolu macha allah dëgg la mais tamit li may wax mooy ñun bi njëkk jàpp nga yëpp njëkk jàpp naa lépp mooy si jàmm nga may laaj suñu sopp soppee suñu fans yi mais ñun jàmm la woo ñëpp jàmm la ñu woo te laa moom mosul am violence ah. pour man xeex yi de am noo mais yaay soo déggee ma wax la lool. waaw mosoo dégg làmb ñu ne làmb rey nañ fa nit. te chaque jour nga dégg football ñu ne rey nañ fa nit. mais pour man. deret dana tuuru benn la. mais deret dina tuuru rey dul ñaan sax di fa àgg ndax bu yàggee day niru leneen dëgg la exemple la. li nga wax dëgg la mais fi may ñëwee ak yow. waaw man pour man loolu. mooy comme li ñuy def nii. comme ni ñu si débat nii ni ñu di koy déglu. dëgg la ndax loolu politique la tout le temps ngay wax naan làmb ji violence làmb ji violence. kon ça veut dire yaa ngi politique loolu. Hmm. pour man. sopp nañ la waaye d'accord ñu ci ni nga waxee. non soo déggee ma wax la loolu yaay. dama bëgg nga déggee fi may waxee. fi may waxee ça veut dire que mooy. Hmm. politicien bi taxaw si télé bi di wax. Hmm. dafa bëgg ñu xàmmee ko dafa bëgg ñu déglu ay problème mais violence chaque jour suñ koy wax si làmb. pour man loolu mooy indi violence. ndax kuy ñëw sa xel du dal. mais làmb ñun woowuñu ci kenn lu dul jàmm. ndax ñun ñi di ay mbëri mbëri mais yére bu rafet lañ sol yaay mais si jaamu la ñu woon nit ñi mais keneen ku fa ñëw pour ay ñun sant ñu la ko ndax ñun xaalis la ñu wut yaa ngi dégg mais est ce que yaa ngi koy waxtaan ak fan sa club bi avant ñu ñëw stade chaque jour dañu am sensibilisation avant chaque jour man samay supporter man képp ku may àndal ngay coow wala ngay indi affaire violence wala ngay dund leneen man dama lay teel a du man ak yow te yàlla dogal na man ñi may àndal su may xarit lañ su may nawle lañu fondoor mais amul kenn koo xamante ne kuy dund loo xamante ne mais chaque jour rek nit su la bëggee ñun suñu xewlee dafa amee nit ñoo xam ne dañuy ñëw di rax ñu hmm. mel ni ñun lañ te amaana duñu ñun hmm. mais nag ñun mënuñoo wax ak ñëpp mais ñu ñu jege dañuy wax ak ñoom hmm. dégg nga waaye man pour man violence lii moo ko indi microbe yi nii chaque jour nga taxaw si télé bi violence bi si làmb ji mais am na lu ëpp violence loolu soo demee Amérique boxe yi dañuy dañuy xeex mais doo ko dégg. Ah, si. non mais soo déggee ma wax la lool. waaw. yaay man chaque jour rek waaw amaan ma bëgg nga dégg man fi may waxee. <laughs> Mm. waaw xëy na Ndoye mi dégg na li naa li wax mais nag gis nga Siteu waxuñu fi waxu Amérique wala waxu football wala waxu waxu waxu politiciens yi. làmb ji la ñuy wax. tey làmb ji moom déglu ma mbër toogu fi suñu papa yi. loolu d'accord naa man mi dama bëgg làmb ñu fi toog ñëpp dañu bëgg làmb. waxuñu waxu football waxuñu waxu politicien mbër moo fi toog am combat am ay supporters supporters yi dañuy gis souvent ñuy dem làmb ji dañuy yor ay armes. di xeex ci seen biir. beneen bi mooy dañuy gis mbër mi ci boppam am ay supporters jël ay kaaru njaganjaay duy ko ba mu fees ñu jëm làmb ja mu am ay accident yooyu kii ginnaaw ñooñu ñëpp dañoo toog sa ginnaaw am na ñu leen di rax mais ah. am na ñu bokk ci ñoom ah. am na ñu bokk ci ñoom day am ñuy rax de hmm. temps en temps. léegi léegi léegi euh, Siteu hmm. ñu waxtaanee léegi euh, làmb ji sa diggante ak Sa parce que gis nañu ni Sa Thiès la boo xam ni su xasee ba yor loxo bi ci ngemb li tant que chute amul du bàyyi. moom ak Balla Gaye ñoo ci loolu dañuy enchaîner ay prise boo dindi misuro ba ca des hmm. yow nga demoon États-Unis bu ñu la gisee dafa mel nañ da demoon liggéey musculation pour yokk sa doole bàyyi fii sa est-ce que ci diir bi nga dellusee démb ak fii rek le 30 am nga temps wu liggéeyaat loo xam ni dinga mën a wekki galgal yooyu mën a indaale. Mhm. incha allah. ci naka. ci phase yëpp man pare naa ba ma pare du tey man man damaa pare avant man nekkuma mbër boo xam ne danga am combat di doog pare de. Hmm. man chaque jour man lamb mooy suma métier. sa tur rek ngay xaar. sama bis lay xaar. Hmm. ndax mën nañu xaar sa combat bi nga bëri biir géew. bàyyi làng bàyyi saaku yi. loolu mënuma la ci permettre dara. te bëgg naa bëgg naa nga ñëw ma waaw fii la nekk. waaw Tapha Gueye xool nañ ko baam man sama papa Tapha Gueye la doon supporté. <laughs> dëgg la sama hmm. benn mbër laa amoon muy Tapha Gueye dama demoon ba man mi loolu dafa nekkoon si man ba muy nekk xale. Hmm. mais làmb du kattan kattan hmm. lu ndaw la ci. affaire bi mémoire la. affaire bu du doole de. Mm-hmm. dëgg la de. dañuy weccoo ay xalaat ay xalaat yu weccoo la rek. Mm-hmm. bu ci njëkk a la. mais moom carte mémoire dafa fees dell. waaw dafa fees parce que mbir gi daf koo donn pare daf koo doon tam. waaw incha allah ba bis ba. yow disque dur externe nga. waaw malal da ci. 2200 giga. gis nga gis nga mbër dafa dafa dama am jàng ah, jàngat sax ci ni muy tontoo. Mm-hmm. dafa mel ni dafa jëlee lu bëri. ci gàllankoor bu am ci sa carrière. muy booy sëy ci sa temps de marche euh, carrière Seydou mooy fi téye di kii rek moom booy bu ko ci euh, dafa mel ni gàllankoor ba la cay dal da nga ci jëlee lu bëri ak jàngat lu bëri lan la la yokk jafe-jafe jooju nga xam ni dund nga ko ci sa carrière ak euh, chute bi nga jëlee ci booy sëy te ñu ñëpp ñu jàppoon ni da koy yaa voilà mhm. da koy daan yaa ko mën mhm. est-ce que du yow sax loolu ci li la lor la bokk waaw xam nga du gàllankoor du ko tuddee gàllankoor te duma ko tuddee jafe-jafe. Hmm. am cant laa ko tuddee. ah taalibe waaw ndax li tax loolu. Hmm. man jour boobu laa gën a bëgg. ndax pare damay dem xool samay faay dem def ko man mosoo maa gis si làmb ñu daan ma may def foofu di defay affaire ba ma boy see daan dama ko léegi dem. xool yi ma manqué ma wuti ko. Hmm. ndax jaam dong laa damay sabablu. mais xale laa. man âge bi ma am nekk ci làmb ji man mosuma def gisement su ma doon man 88 laa judd. c'est ça douzième mois. mais suma ma joom ak suma ma ful ak su ma fayda moo ma indi fii. Mm-hmm. te fii du kenn ku ko moom du yaay du bàyyi du kenn liggéey la man ñaanuma benn mbër ndimbal. Mm-hmm. maanaam làmb ji suñ si nekkee ci biir ba mu tëju. loo mun defal loo mun si man defal. man tamit lu ma mën si yow naa ko def. Mm. xanaa man di ngeen ma may ma laaj na. waaw laajal waaye bàyyi laajal. Siteu lu garaaw laa ko bëgg laaj eh, eh, te te xoola question la bu ñu bëri di laajte lan mooy lan mooy sa secret parce que Sénégal peut-être ñëpp dañuy suivre làmb ji amateur ou pas amateur mais ñëpp a seetlu ñu dafa bari ay supporters da ngaa ay fans lan mooy lan mooy lan mooy sa secret. Eh, su ma secret ma wax la ci bi ci njëkk. Mhm. mooy dama modèle. modèle. modèle. modèle man waaw dama modeste ni ma ko mën a waxee. ah d' accord modeste d' accord. modeste modeste yow modeste waaw ok. dégg ma dama modèle soo déggee ma ne la modèle hmm. mooy maanaam man dama nekk nitu aar. Hmm. moo tax nga wengal mbaxane bi mu dem ci ginnaaw non non du loolu man. ok soo déggee man la dama modèle man téyeer laa dama def couture dama def aar man dama mën fecc man bu may nekk booy dama mënoon affaire fecc yi. moo tax man la dama ah, ah, modèle moo tax ah, ma wax la hmm. yaa ngi dégg mais li am solo mooy am dictionnaire boppam hmm. li am solo si nit hmm. mooy nit pour am complexe su dara man dama firi man dama firi sama àdduna mais nag du ma du mukk doo paccax quoi. am ah, ndax soo ramba soo yeggee rambax rek di nga pàccaxu. <laughs> chaque jour sama tekki boo da nga yëlëbu après. non yëlëbu dafa am day dépassé. <laughs> Pape Cheikh li mu li mu wax nii xam nga ni nga bu ñu nee gan day ñëw léeg-léeg. suñ ko miinul baax wala dinañ laaj dinaa ko ko seedeel. Mm-hmm. bi ma bi ma laajtee tuuti. Mm-hmm. Euh, nee nañ ma mbër moo xam ni la mun nga bu la neexee toog buntu këram 24 heures doo gis mu génn doo ko ma doo ko gis muy taxawaalu wala vraiment loolu loo xam ne la mm-hmm. déy nañ ma ko mm-hmm. aussi ni muy waxee nii ni ma wax dafa mel ni évolution bu am ci entourage am ci communication vraiment évoluer nga ci avancé nga ci ndax dafa am ci staff ñu la gën a jege gën la jàppale ci wàll woowu gën la teg ci yoon mm-hmm. waaw man kenn bàyyiwuma man ñëpp dañ may dool yi yaay booy yi <laughs> <laughs> man ñëpp lañ may dolli ndax xam nga loo tax ñu may dool dolli. Mm-hmm. man ku ma gis rek dama lay jox li nga moom. ba tax na kooku day sawar jox ma li nga xam ne mm-hmm. man noonu laa ku ma gis dama lay woon taalibe wala isaan loolu boo nekk li nga xamante ne man su may saaf bari nañ ni ma la ko mën a waxee bariwuñu man ay xale rek laay àndal mm-hmm. ay xale laay mais chaque jour damay ànd ñoo xamante ne. loolu du piège nga nga jëm si combat sa diggante ak Sa Thiès ñu xam encadrement bi Sa Thiès am. exemple bi mooy duubalees Less toj na Afrique ci lu bëre nga ne ay xale rek ñu ngay àndal. waaw su déggee ma wax lool man ñi may àndal soo si tànnee Maxime mbargaan Père Aline Diop ak suma papa Babou Senghor maanaam ñooñu soo leen tànnee. si ñooñu laa lay mën jox exemple am na ñeneen ñoo xam ne ay mag lañ. waaye ni ma la mën a waxee. waaw si ñi ma la jox nii exemple. mais li ma la mën a wax mooy man ñee naa mag ñëw ma mag ndax soo déggee moo wax la lool dama nekk xale mais damay nemmee mag ñi di waxtaan ak ñoom. Mhm. te rawatina lu juróo si kër goo xamante ne yaroo ci kër goo xam ne maanaam su ma neexee ma ne man man dogoy sama maam. waaw. Euh, laaj bi nag moom du pour man c'est pas personnel. mais dañu gis ni euh, quand même am nga délégation bu bëri bu nekk ci ginnaaw côté sunu moromu jigéen ñi est-ce am nga jabar. amaguma jabar. ah amagoo jabar. parce ce que yaa ngi jël ci xale yi. loolu concerné wu la. ah oui loolu la da jël jeex da am jabar wala nga jël jeex. waaw moo tax ma ne ko loolu concerné wu ko. waaw ah, mbër mbër mbër mi ngi merde. Ah. léegi itam Siteu suñu waxtaanee làmb nga jëm ci bës bi comme bu le 30 bi il faut ñu laaj ñu laaj gàllaaj gi tam. Mhm. gis nañu booy ñëw léeg-léeg itam saako yi dina bëri lool foo ci toll. dina bëri. saako yi. làmb ji nee naa la. mënu mën a wax lii a wax. non il lu mu laaj. il faut que ñu a wax tuuti nag. mais lamb ji lu mu laaj. waaw day am dañ koy def. ci sa jàngat yow laaj lamb ji lu mu laaj ci wàllu galaaj. ñaata million lamb ji lu ma la lu ma amoon yëpp def naa ko si lamb ji. ci sëriñ wala ci entraînement. non soo déggee ma la lool ci phase yëpp. Mm-hmm. ndax ñun lamb ji yàgg na yàgg na trop lu ñu am dañ koy def. si nit ñi ndax mbër dafa métti. mais du ñëpp ngay ngay wax li ne ci yow. gaa ñi ne États-Unis fa nga demoon Yékini ak la de Guiers ñëw fii ñoom dañu naan entraîner guddi ak 4 heures du matin. Mm-hmm. États-Unis ba nga nekkoon ñaata nga doon entraîner par jour ak na daan nga woor foofu. man États-Unis ak Sénégal laa yemale fu ma mën a ne deux séances lay entraîner. deux te aussi tamit ñi ma nekkaloon foofu ñëpp maa ngi leen di sant. Mm-hmm. ku mel ni Père Abdou Gueye Xarim Thiam Issa Thiam mm-hmm. Ndeye Sow. ñaata tukki la tukki ci diggante bi. pour préparer combat bi. waaw man combat bi États-Unis ba muy taxaw États-Unis mu fekk. waaw mais ci diggante bi demaatoo. benn yoon benn yoon laa ci dem benn yoon ci weeru koor gi laa dem États-Unis ñëwaat. Mm-hmm. mais bi muy jëkk a taxaw foofu la ma fekk ma ñibbisi. Mm-hmm. kon yow dafa mel ni fa nga dëkk léegi de. li ma fay toog rek moo ëpp de. <laughs> dafa yàgg quoi. bon man fa yàgg. man léegi léegi léegi léegi ma la. dama koy defal benn affaire rek bu ndaw. waaw. Euh, xam nga ñun si la ñu nekk si. ñu am lu bëggoon def rek avant. wala bëggoon kii dama ko am ku ma ko bëggoon paas rek balaa ngay posé. waaw acca kon bismillah ah, il est une wala. waaw benn bis yaa des donc mën nañ dem ba xëdd parce que bu ñu paree balaa fajar gi il faut ñu il faut ñu lekk laax Alfi dafa préparé laax ah. voilà léegi euh, Siteu dafa am ku ma la bëgg a ku a paas allo allo bi na def waay sant yàlla ba Sa Thiès laa la bëggoon paas mbër ñu ngi lay nuyu kontaan ci sa euh, participation ci quartier général bu doon suñu sago yéen ñaaree jàkkaarloo tey ci guddi gi waaye ni mu demee la ni mu demee moo tax euh, ñu ngi lay gërëm di la sargal te di la wax ni Sénégal yëpp ñu ngi préparé le 30. waaw ñu man moom yow laa faral <laughs> waaw man ni man yow laay supporté. nga ni waaw dégguñu la bu baax. bare ñoo far ñu far. jeex na jeex na ay ci ñu ngi lay déglu nga nuyoo waaw. waaw ñu ngi nuyu Sénégal monde entier. Hmm. di gërëm yéen ñi toog ci plateau bi aussi. jërëjëf di nuyu sama adversaire si tam. di baalu àq ci weer koor gi euh, ñu ñaan yàlla yàlla def ci tawféex def ci jàmm. Hmm. Hmm. may ñëpp wër. waaw di rafetlu émission bi di wax làmb ji moom jarul xuloo jarul xeex jarul ŋaañoo mm-hmm. man maa may xaalis si ta si ta may ma xaalis mm-hmm. kon ak lu mu mën a xew nañ ko rafetal mm-hmm. ba yàlla def la trent juillet ma ñaan yàlla yàlla may ma ndaw leneen li ci des yëpp suba ñuy ànd ñun la leen tuddante doom dañuy demale tey dikkalante waaw moo tax man gisuma làmb daal luñ ci mën a jàpp pour mu ñaaw mais Sa Thiès mhm. discours ñu ñu ñu gis nga am discours diplomatique. ah waaye sa adversaire yéen ñaar. c'est magnifique euh, mënugu leen daje. lan nga koy waajal. le 30 juillet. parce que gis nañ nga toog sa roq rek kenn déggu la kenn gisu la ci loo yëngu. <laughs> waaw man maa ngi fii rek maa ngi entraîné di ànd comme ñu ma daa àndal man moom ku ma xam ku su ma amee combat damay dem toog sama roq dem liggéey mhm. mais yàgg yàgg yàgg danaa ñëwaat teew liggéey. comme daf ñu ko xamee rek mais maa ngi sama rëkk di liggéey daal. nee na boo boo ñëwee keroogee la 30 loo indi mu fekk la si moom indiwul dara dafa préparé rek di la xaar bunt boo tijji mu tëj ko yow loo indaale yan caabi ngay indaale booy ñëw. waaw man préparé wu ma man damaa pare. ah préparé wu da ngaa si si ca dégg damaa pare. <laughs> na moom pare na bu yàgg. waaw naa loo koy wax moom mu ngi lay dégg waxante leen ñaar. non naa la waa biir Sa Thiès. na koy téye. sant waaw na ko gi. waaye sant ko tedd gi. ñu ngi lay baal baal naa la nga baal ma suñu borom def yi ngeen di def non mais tout ko dégg ci mbër yi façon bi ñu waxee ak beaucoup de diplomatie ak ak yar ak li ci neex xam nga yaayu mbëri yaay yaayu mbëri ça c'est à saluer yaayu mbëri léegi xam nga lu ma ci neex mhm. ku ci nekk ngay nuyu moromam waaye ku ci nekk ngi naan yàlla la daal ay ñaanal ko jàmm ne ko ñu fekk la 30 ak jàmm daan la. ma daan ko rek waaw ma daan la rek gam dàpp. waaw mooy mooy mooy li may wax rek. làmb sport sport bu sport bu boolewu rek du sport. te man lu boolewul doomu aadama ci jàmm ak salaam. yàlla bu ma ko fekkee. dëgg la mais euh, Sa Thiès. c'est beau waaw ñu gis Siteu saa suy bëree adversaire dina la nax. boo yóbbu la ci làng mbaam mu yóbbu la ci ginnaaw saako yi daan la ah. ndax yow di nga nangu Sa Thiès diri la ba foofu ndax di nga nangu Siteu diri la ba foofu. Mm-hmm. waaw balaa boobu yàllaa ko daan ndax man mbaa ko gën a gaaw fuuf. ah bon <laughs> kon bu arbitre sifflé yaa ngi ci kaw. <laughs> non man dama ko xam avant avant avant avant la avant ay bërëb arañ yi man mbapat mbapat seraa naa mbapatam ah. euh, moo euh, euh, kii bi nu mu tudd sax Alioune Seye numéro deux moom xam na xam na laamu ji moo koy wax buun Siteu boobu mu ngi fo xam nga li muy wax bu baax waa ji dugg na sa gaar yër yër dund la de déggoo li ma la wax man li ma yëndoo laa ko yëndoo yow xamal loo ko xamal yow loo xamal kii ba may kii moom ni ma xamee waaw man noonu laa ko xamee. moom nee na ba sa ay mbapat ba ca buun. fekk na ko buun doo fekk xam nga bëri woon mbapat foofu. waaw. doomu aadama bëre du ko mbapat ba tey foofu noonu muy wax jour combat boobu la fa nit ki ja bëre. Mm-hmm. yaa ko tëj. non jour boobu man ak kooku maanaam lamb jooj dafa jaxasoo woon. Mm-hmm. moom moom i bëre ceer bu buun. maa koy laaj combat boobu. yëddante ngeen de Sa Thiès. waaw mais li ma li ma bëgg a xam mooy est ce que waa ji di nga ko di nga nangu mu diri la ba fi mu la bëgg diri mooy ci làng ga wala da ngay def comme ni la xamee prit coppet bip laa ba jeex na. waaw xam nga xam nga saako yi du fekk kenn. Hmm. man gëm sama bopp moo tax fu mu fekk danaa ko fu fekk fu mu taxaw bopp laa koy fekk. Hmm. man loolu moom jaruma jëwee jaruma nangam sangam man. dama bëgg. combat boobu. Hmm. mu dàq ci kombay ci saison bi. Hmm. incha allah loolu mooy sax. man loolu lay ñaan yàlla. moom nag moo xam suwaawam mi am yeeg saaku yi yooyu man intéressé wax dëgg yàlla. Hmm. man li ma andi rek moo ma ñor damay ñaan yàlla may ma ndam. amiin surtout maam moom duñu ay ennemi. fi ma dëkk ci sama kër papa soriwuñu. am na suñu nit yoo xamante ne ñoo ko ñoo ñu bokk sax dañuy supporté. Ah, kon ñaawoo man gisuma ko sax sama diggante ak moom. gis nga ba trente weesoo. dama koy ñaanal yàlla may ko jàmm dama koy ñaanal sax yàlla may ko jàmm. parce que jàmm boo ko yéenewu doomu aadama yàlla du la ko may. Mhm. damay ñaan yàlla daan ko. dem seeti leneen man loolu rek laay ñaan yàlla ci barki weeru koor bu sell. voilà Sa Thiès. allo Sa Thiès xam ne. lu mu wax. wax théâtre kat dëgg la wax. <laughs> mais waxal ak moom directement. boo ko nga sa waay bi dëgg la ndax xam lu tax ma wax la hmm. lool. man Sa Thiès man toxuma ak mbër yi nga xamante ne. arbitre ne bii mu ne ñor mel seen kaw. man suma boobu dafa bari xam-xam man. te man du mbër bi ñuy sonko waaw xam nga dafa ne dina gaaw mais bés bu ma songee day gën a gaaw bu dee nag am na ay kilifa am na ay mbokk nañ ko dooli saa dégg nga saa Thiès man du ma ñëw di may daan ci ay seconde man dañu toog ci plateau wax gis nga wax ji ah. man waxuma di ay xiyo wala di ay ŋaayo. non xiiro wuñu. ah mais mais da ngaa wax ma déglu la da may déglu ma wax man. du ma du ma du ma du ma ma maanaam. bés bu dawee ñëw ne bërët. di xam ne yow doo paayaa. Siteu eh. man du ma mbër bi ñuy taxaw di naa taabale ab dara. Eh. man déglu ma rek dañuy déglu ma fii man boobu. dëgg la dëgg la soo paree nga bàyyi ma wax. dana fu mu toll nii xam nga te yaa yaay saytal nga gànnaay ma ay war toog ci biir nit ñi dañ lay toog déglu sa 30 da ngay kay ndax da daanu amul problème mais dama ne la man ñi ma bëril bëriwoo ak ñooñu ñi ma bëril ñoo ëpp doole ñoo dàq bëri. bu dee combat la a gaaw mais man kanta ay waxi staff bi ngay wax ak man waxaalewu ma ko <laughs> yow yaa assumé ba jël ma man ma assumé ba jël la amatul luñ fi étude staff. li ma leen ñaan mooy ñu bëri ko ci fulla ak fayda ak ngor man loolu doo nga laa ñaan yàlla may ma ndam man new ma fii di wax wax ji bëri parce que ma ngay nekk fii di wax wax ji man boobu ba léegi que man xamul da ma sax rendement man làmb ji jëf rek laa ci soxla da nga wax may ma ma wax Sa Thiès Siteu ngay waxal Siteu yow yaay kan man maay Siteu taalibe Bamba borom caaya bi borom tik bi def faaya maa lépp victoire. nee naa la ko defet man lan laay naataabale. yow man paa ma daan bëgg démb yow moo la mujjee daan. kan yow kon man la bëgg a wax benn affaire man la sita borom tik tik bi def faaya Baye Fall bi ay si caaya mooy wax ak yow. waaw man du mbër bu ñuy daan ci ay secondes. dégg nga bés boo dawee ñëw. mën na nekk ndax da ngay daw doo paayaa. mën waaw incha allah maa lay xaar mais nag leen laa lay doon sa àdduna <laughs> leen laa lay xamal tool yi mooy combat bi bés boo tëddee ba nelaw ba jàppande yaa ngi bërëg benn benn mango baxal xam nga yow ay mango ni ma la ko mën a du ma wax sax loolu ndax ay mbër nga fi bëreel du ma wax ndax ñeneen ñu bëreel hmm. gis nga li gën a garaaw si àdduna. nga ñëw am benn affaire booy présenté wu saa yoo ñëwee ñu xamee la benn affaire. ak ki xuus jaar. mu lu ñoo bokk dama xuus jaar. te bu ñëwee dañ la fa fekk bu ñëw nga jëli ko. li ma mën a xamal. Hmm. bés bu ñëwee ci ay secondes yooyu muy wax naan day ñëw dina am lu ko bett trop. Hmm. voilà. Euh. Sa Sa Thiès Sa ñu ngi lay ñu ngi lay gërëm bu baax. waaw maa ngi leen di gërëm aussi bu baax. ban message ngay jox dañ fay wax wax ju wax ju dépassé. Uh-huh. ngeen baal ma àq. neexoon na. su ma la waxee wax ji dépassé nga baal ma àq. parce que yàlla waxoo ko dara lu ma dépassé yow sama waay nga dama la woo pour ñu sekk jàmm. parce uh-huh. baax nga mais yow ku baax nga. yow ñoo far yàlla na oh, yàlla defal jàmm lenn lenn lenn mais yàlla defal bi moom maa ñaan yàlla yàlla fay ma. non dama lay daan incha allah di gërëm ñëpp wax dëgg yàlla kantoon naa sant naa leen merci jërëjëf. jaajëf incha allah ba la 30 juillet. merci beaucoup ba le 30 juillet incha allah ñu ngi lay gërëm bu baax ci disponibilité malal xam naa léegi ñu jeexal noonu non bàyyi laax bi rek ci des waaw damay sax génn ci làmb ji. waaw ndax dana ma jox léegi benn benn xabaar. très bien fële ca Rosso Sénégal. dafa xew ñu ne benn bus. Mhm. moom moo daw ba dugg ci dex gi. am na ñu faatu am na ñoo xam ñu ngi ci bis bi ba léegi di woote wallu waaw te comme que quartier général dañu koy seetaan. nu mhm. wax pompiers yi nga xam ñoo nekk booree Ndar ak Richard ak mhm. képp koo xam ne mu nga dem dimbali ji ñooñu. Mhm. ñu dem wàllu leen parce que ba léegi bis baa nga ci biir ndox mi. donc loolu mu ngi xew fan exactement mi ngi xew boori Rosso. Rosso waaw d' accord. Mauritanie. Rosso Sénégal Rosso Sénégal donc loolu xam naa autorité yaa ngi seetaan ak ñu ñi dénk loolu euh, ñu ngi koy xool je pense que mën nañu mën nañu ñu ngi koy préparé. te korité daanaka benn fan a ci des. waaw benn fan a ci des pap na nit ñi jàpp rek que ni euh, dugub sere yàlla pap comme ni ngay xëyee di dem jëndi sa mburu mhm. di ci am apport yi noonu la la dugub di di jox. Mhm. te boo gisee ni laax comme ni ko ma Massamba waxee. Mhm. bokk na ci lekk yoo xamante ni temps yu njëkk ya moom lañ daan lekk. donc nit daawul ruus bu mu dee mu teg boolu laaxam dem ci ba jeex. donc léegi nit ñi dañ koy ruus mais bu ñu fàtte ni sere yàlla bu complet léegi nag xam laax dañ ko moderniser pap ba ay fruits ñëw ak ah ñoom raisin sec ak li nga xam ne mooy beurre bu njëkkaan da nga daan jël sa daqaar rek jàmb ko def ci pour mën a am goût bi nga xam ni moom la laax di di laaj euh, beurre bi dañ ko daan dañ ci daan remplacer lu ci mel ni ay dax wala li nga xamante ni mooy euh, diwu ñor parce que ndar ñun dañuy utiliser diwu ñor ba tey mais xam nga fii rek ku nekk ak sa choix bu kër ñoom Pape Pape Cheikh di lekk caakiri kër ñoom Alfi ña nga ca laaxu Nginde Diop kër ñoom Keps ñi ngi ngalax ñeneen ñi di di laaxu soow donc bu ci nekk rek pap sama yaay de nga loxo log la moom waaw man moom sama yaay nag Ginda Diop lay def Ginda lay def pap waaw galaxu ceeb bare na fa de waaw galaxu ceeb galaxu ceeb defaroon nañ fi bu neex defaroon nañ fi bu neex waaw ñun ñi ngi ci Ginda Diop bi euh, jàpp rek pap que ni euh, su fekkee bu yeneen dëkk yi nga xamante ni ñoom ñooy feete korité bi comme ñun ñoom tàmm nañu yeneen lekk mais ñun laax bi lañu la ñu utiliser parce que li ñuy li ñuy li li tax ñu gën ko taamu ci ci korité bi mooy boo ko lekkee fekkee da ngay diigal bu ko defee ñoom ginaar ak ñoom michu bu ñëwee mhm. mën a dugg sans sans transition pap ndax xam nga ne laax rek bu fekk soow rek mhm. pap ñoom raisin nga sànni ko ci def ci sa diw ñor wala nga sànni ci sa beurre pap mu siit boo koy lekk yàlla na xel tey jeex na kon Pape suur nañu rek ba suba in gannaaw na laax yëpp tàng Pape na soow yi saf sukkar voilà te mu jàllale comme partage bi ñuy def nga dugg sa kër dëkkandoo jox ko sa potu laax mu jox la potu laax loolu du fi jub Pape sunu yaay jox ñu ko te ñun mhm. tam ci loolu la dox voilà en tout cas en tout cas loolu am na solo ñu ngi la ciy gërëm bu euh, baax bu leen fàtte donc suba la amal grand quartier général 19 koy amal ca Sea Plaza ci dóom bi na a euh, a a euh, programme boobu mën a neex Sénégal yëpp alors ñuy gërëm bu baax waa salle industrie d'abord euh, barki démb am na keneen koo xamante ni dañ koo may machine à coudre euh, bu fekkee yegg na ñëw laal yëfam rek teraanga àddina bët kaay laal sa yëf téye ko euh, nga yóbbu ko lii nag c'est grâce ak salle industrie machine baa ngoogu dafa woote rek ñu may ko ko je rappelle que du ay jeu concours du dara ay xéewal la xamante ni quartier général moo ko may téléspectateurs yi bu doon suñu sago ñëpp la Cousin euh, ñu may leen ko donc euh, yaa ñu woowoon keroog fàttaliwaat ma tur bi nan nga tudd. sa grande sœur moom moo woote woon keroog ñu may ko machine à non non du jar wax sax garaawul yow téyel ko rek boo demee nga jox ko ko dégg euh, fexeel ba bu ko yóbbu fenn bu ko yóbbu fenn jox ko ko directement. voilà moom moom lañ ko may keroog donc machine baa ngi noonu yow yaa ko moom ñu ngi ci gërëm bu baax salle industrie bu ñu mënee am en même temps image u industrie li nga xam ni mooy